filmaani dootul jeex ba faw fay baraw Thomas Sankara lu ñuy sant annulons la dette relevons la tête on ne vit pas replay <laughs> replay nuy naa la frère Khalil Diop Khalil Diop bëgg naa la frère bëgg naa la baax Khalil Diop mon frère kontaan naa. non saar from Amerik, nuy na la saar gëlëm ndeysaan Dani Silla ndeysaan masar War ndeysaan Kumba mbake ndeysaan amin Kumba mbake amin gorgi gi Njoxor Diouf ndeysaan Binta Kordia Fabouré ndeysaan ndeysaan Sidi Balla lenu xoj oh Fafanding maman ana ba sama yaay jooju borom an mariste ndeysaan lañu xool ndeysaan aada kuwaate aada koyte nuyu naa la aada Seydou Mané merci Seydou Mané Pape Moussa Kandé Idrissa Sané nuyu naa leen xarit yi am di jàmm yi téléphone nuy naa la borom Matar Fall naa leen sama gars yi combattant yi ndeysaan yu góor ñeek yu jigéen ñi sama gars Cheikh Tidiane Sembène maa ngi lay dolli ziar Cheikh Tidiane Mariam Kan borom Espagne John Vieux respect frère Zion Jean El Capo ndeysaan Mohamed Lamine ndeysaan bëgg na len sama gay Awa Kamara dessa dessa dessa Moustapha Touré Patrice gomez dessa on a vit Big Abdul miala leon hari xarit yi am di jàmm yi live bi normal live sax dama noonu damay bàyyi ba suba ñu def live mais daa am ñu may woo di ma bind ne Kaliphone foog ngay génn foog ngay génn di ñu defal ay décortiqué yow bu ñu lay gis rek sunu xel day dal ndeysaan Lamine Diène Cheikh Tidiane Sembène ndeysaan euh, Tumza borom italiano nuy na la ndeysaan Mati Latima Sow may dem kan borom Espagne Lamine Diémé Touré Aboubacar nee na ton numéro mon numéro c'est le 77 121 30 24 WhatsApp Sénégal 77 121 30 24 Madika Diop nuyu naa leen xariti am di jàmm yi waaw maa ngi gisee na kontaan Paul Princesse Sagna ndeysaan nee na ziar ici borom Nice ndeysaan Serigne Babacar Sarr gars yi ma leen di nuyu yaay Mari Mbodj nuyu naa leen bu ma nekkee fii di lim nag yéen ma gën a xam foog ngeen jéggal ma si nuyoo yi donc di jaajëfal ñëpp di waat euh, masawaat ñëpp coono ñu ñëwaat rek def benn live bu ndaw rek xam naa suba xëyuma dinañ defaat benn live si suba bi ay midi 13h incha bu ñu yeewoo ak jàmm ndeysaan Léonine nee na je suis content ñoo la gën a kontaan euh, Pouy Ousmane nee na noo kali yaa mën a xeex waaw loolu la xaar si ndaw ndaw bu tollee ci xeex dafay xeex ndeysaan Thierno Diop nee na kontaan naa trop ndeysaan Malami Fati nee na Greening Kali info. ndeysaan guddal fan rek incha allah amin ñu bokk lépp ñu ñëpp yàlla def ñu gudd fan ñun ñëpp incha allah rabbi kalinat kali national ci lo saw jaajëfal naa leen donc di ñaanaat yàlla sunu borom rek yërëm sunu way dawlu yi waa ñiy jot a génn àdduna si mbir mi bu mu commencé ba léegi yàlla na leen borom bi teeru ca àjjana yi gën a kawe yi di ñaan yàlla sunu borom ñi nekk si hôpitaux yi mu saafara leen yaakaar naa ni Macky Sall mu ngi déglu sunuy message mu ngi koy déglu

yaakaar naa ne Ousmane Sonko loolu la sànq nee na leen population bi mooy décider yaakaar naa ni loolu laa leen yàgg wax sama biir live ne ñun ñooy décider du pouvoir du ñun ñooy ñaan Macky Sall Macky Sall ñuy ñaan yaakaar naa ne Ousmane Sonko dëggal na loolu sànq nee na leen instant bi Macky Sall doxalul ñun ñooy doxal te yaakaar naa ni lu rafet la dégg ngeen sama live ma ne Macky Sall bëgg nañu ñu ubbi enquête ñu xool ñan ñoo rey. ñu yobul len ci yoon deg ngeen Ousmane Sonko wax nako ko ngeen mané Macky Sall dafa wara indemniser famille ñi genn aduna Ousmane Sonko yaaka naani deg ngeen sank moko Macky Sall tamit yaaka naani deg ngeen moko dinañ len indemniser donc encore une fois euh, wa ndessane Baye mbaya neena Kaliman yow lay roy waa jangeen may ziar sama sister bi doon def live legi mu ngi tuddu Yaay Fa mu ngi dekk Suisse sénégalaise la di sunu xarit euh, bu vraiment. Euh, yaa gën a bëgg live si Kali Info mais xam naa ni tey la euh, temps am mu doog a dugg te mu ngi ci biir kër gi saa ko kiiwee rek incha allah dina génn donc ñu def jàngat lu président Ousmane Sonko wax dégg ngeen ko lum leen wax foog naa ni dugg na seeni nopp yéen ñëpp mooy euh, nañu gën a takku nañu gën a sister Fatna Soxo maa ngi lay ziar ma sœur de valeur maa ngi lay kontaane bu baax waaw Ousmane Sonko président dégg ngeen lu wax mooy. na jeunesse bi gën a takkuwaat dégg ngeen sama barki dem ba nee naa leen xeex bi du xeexu Ousmane Sonko du xeexu Kaliphone du xeexu keneen yaakaar naa ne Ousmane Sonko wax na leen loolu tey nee na leen xeex bi du xeexu diw du xeexu diw xeexu sénégalais yépp la te yaakaar naa ne loolu laa leen waxoon démb xay na am na ñu meroon quoi mais dama leen ne lii du combat Ousmane Sonko du combat Khalifa Sall du Barthélémy Dias du Fatou Dansokho du Kaliphone du Tunkara combat national la kenn du kenn amu si ndam ñun ñoo si am ndam ñun sénégalais rawatina nag jeunesse bi muy jigéen ñi nag ak góor ñi suñu yaay yi doog a ñëw ak suñu papa yi mais ndaw ñi d'abord parce que Ousmane Sonko nee na leen bu dul woon suñu dëggu suñu dëgër heure bi dugg na si kaso bi depuis un mois ci ginnaaw mais dañoo won ne nguur yow boo soxlaa ñun ñu soxla yow da ngay perte te nee naa leen lancé bi du dakk sama biir live de ngeen ma ne leen France fii 2019 la fi gars yi def mouvement gilet jaune chaque samedi dañuy manifester mané len ñun noonu lañuy def de ngeen sanko Ousmane Sonko wax na len ko néna len rythme bi ñu jël waruñu ko bayyi war nañu dajé ñu xol chaque fois ñuy dajé di manifester te nguur daf koy autoriser par force Ya kanani sama live démb waxoon na len lolu néna len leen nguur dafa am obligation manifestation bu ñu ne samedi wala dimanche bëgg nañ ko def police nekk suñu wet gendarmerie nekk suñu wet parce que démb ba mu leen koy wax dama leen ne ci constitution bi la nekk lu nekk ci constitution bi nag du ñu ko ñaan dañu koy jël par la force donc gis nañu Macky Sall génn na bon xëy na discours am bi mën nañ ne moo tane discours ministre de l'intérieur lii nag moo ko doon jig quoi parce que sénégalais yëpp ñu ngi doon xaar Macky Sall lu ñëw di góox ak leex mais gis ngeen ko dafa dafa ndeysaan dafa rus ndaw Macky Sall dafa wet fu mu toll nii sama gars yi Macky sàll dafa wét Soora nuy naa la Soora Soora sama gaay yi sàll dafa wét dama ko yërëm nag parce que jeunesse bi yéenewuñu woon Macky Sall egg fii mu egg tey parce que ñun ñoo ko faloon en 2012 muy ñun ñëpp nag ay Ousmane Sonko gars yi ak Barthélemy Diaz ak gars di toog fii tey yëpp woon ko ginnaaw ñun ñoo voté leen Macky Sall bu ñu respecté woon déggaloon ñu pax bii mu dugg tey du dugg. mais bañ ko falee ba pare maanaam daf ñu dàq ñun ñi ñun ñi ko faloon muy ay Barthélemy Dias yi ñoom Khalifa Sall yi ainsi de suite daf leen toroxal yàlla nag boo koy commencé fay parce que lu ñu naan yàlla tey ji du xaar ba yowmal xiyaam nga koy def tey day réagir tey ndeysaan Astou Diémé Bodian nee na mais toi aussi tu as beaucoup travaillé pour la jeunesse waaw loolu gars yi bari dañ may message ne ma Kaliphone combat bi bu ma si nekkee dëgg-dëgg wallahi yooyu yaa tax même YouTube bu ngeen demee xool lu ma fa dugal commentaire yëpp loolu la ñuy wax du man du parce que lii bëgg sunu réew moo tax ñu koy def maa ngi siy jot ay saaga même commentaire yi da ngeen di gis gars ma saaga sama WhatsApp ñuy saaga lu ne lañ koy def mais du ma woon seen kanam ne que dama faible seen côté jamais ma woon leen ko dama leen di wan ne tey laa gën a bëgg sama réew drapeau vert jaune rouge bi fu ñu dem dañ koy représenté ñun du xaalis bi. bu doon xaalis bi dañuy nekk côté ñi yore xaalis parce que Ousmane Sonko xaw ma ko du ma may cent franc mais problème bi bëgg sa réew la bëgg sa réew réew bu soxlaa keneen ku soxla da ñàkk loolu la nit yi bari tey comprendre moo tax ñu rejoindre combat bi combat bi wax naa leen barki démb ba koy tëgg am nañu ko gëmuloon ay quelques nit la. mais ba ñu demee ba ci biir dañoo xam ne li combat wu askan wi la combat wu nation bi la du combat wu ñaari nit ñett nit moo tax ngeen gis àddunaay nit dugg ci biir astofal maa ngi lay maa ngi lay baax a baax ñuy remercier encore une fois combattant yépp nag ñi ci am blessure ñi ci am bopp buy metti ñi ci nekk coono jéggalu mais lu ñu naan mënoo am omelette te tojoo nen mënoo am omelette te tojoo nen donc moo tax désagrément yi am fii toj yeeg taali xeexi saaga yi fale ñu def lii saaga yi ñoon saaga ndeyu Macky Sall ñun neexuñu wax dëgg fa yàlla parce que am nañu yaay ku saagoon suñu yaay duñu neex mais falewoon ñu def nii pour Macky Sall génn tey gis xale yi réseaux sociaux bi amul nitu APR bu sañ a toog réseaux sociaux di défendre tey Macky Sall amul ñoom ñëpp nag APR bu ñu nekkee dix milliards de personnes amul APRiste buy toog Facebook di live amul dama nekk si ñoom nag daan naa ko def ba ma koy def tamit waa sunk yi ñu may seetaan dañ doon sax partage samay live parce que boobu bu may wax tamit du ma wax luy neex Macky Sall ñi yàgg xam Kaliphone Sall ba may nekk Dakar di live même ba ma doon défendre Macky ñii tey ñoom maam seen ñoom yaay astu ñoom faddansoxe yi ñoom Alain Jéeme yi nga xamante ni Sonko lañ leen xamee dañ doon partager samay live parce que dañ doon gis seen bopp parce que ñun injustice dañ ko bañ ñun Sénégal la ñu ñor lu ñu ànd ak ànd ak ànd ak président bu deful naka su dul noonu dañuy taxaw ne président li nga def du yoon parce que président sàkkuñu yàlla moo ñu sàkk yàlla dogal nag ñu ñëw Europe ñu ñëw rek mel ni lu ñu naan dañoo xabtal yàlla ci ubbi suñuy bët wan ñu fi dundin bu neex bi vie bu riche bi dëkk bi amul pollution dëkk bi amul corruption dëkk bi amul ay saxaaru oto oto buy saxaar ngay dawal oto fii muy saxaar sañoo ko xalaatoo ko nga dawal sa oto fii assurance jeex xalaatoo ko mën nga dawal souvent gars yi amul permi ay booy yi souvent ñu sàcc di ko def booy ndaw mais sa oto amul assurance xalaatoo ko def Europe police taxaw ci télé bi droité oto ana sa permis aw ma mu laaj ko cinq mille wala dix mille xalaatoo ko def fii

xol bu bon ci ñoom mais seen politique la ñuy xeex seen politique bu salte la ñuy xeex du nit ñi saaga yi ñu leen di saaga du lu ñu gënal sànni xeer yi ñu leen di sànni xeer du lu ñu gënal mais c'est juste pour ñu xuppi seen bët te yaakaar naa ni Macky Sall xuppi na bëtam parce que discours am bi tey dégg ngeen lu mu ci wax médiateur de la république tamit démb dégg ngeen lu mu wax ci discours mooy lan signal bi askan wi joxe mooy dañoo xiif. ndaw ñi amuñu liggéey sonn nañu kon Macky Sall da doon toog biir palais bi jël avion dem Amérique dem France dem fu ko neex bu ñu nee mu ngi jaar fenn gars yi dem joxe ji ay nit mille 5000 5000 dugal leen ci ay njaganjaay andi leen leen mu fees dell mu leen di gis di daan yaakaar ni jeunesse bi kontaan na fekk xamul ne ñooñu dañ leen jox ay 5000 5000 5000 ñooñu bëgguñu ko mais tey bu toogaatee dina defaraat njeganaayam dina xam ne ay ministre am liggéeyuñu ay directeur am liggéeyuñu ay yenn député am liggéeyuñu. falay ñu defoon li hippi bëtam te moom jàng na toog na këram parce que si discours am wax na ko sànq na c'est la première fois manifestation yi di am yu yu am Sénégal Macky Sall ubbi na ñu wax ko sànq dégg ngeen ko boppam mu ne c'est la première fois manifestation yi di yu mel di am Sénégal parce que mayuñu ko dara dañ ko tàngal ba mu tàng jër dañoo mbir mi si togon rek des fan manifester rek dem les bras non day noy parce que ñom loolu lañ tam gis politicien loolu la yag ah parce que ñom dañ ko la wax groupe whatsapp ah sonko ñaari fan lañuy rek après sonko moy ki parce que loolu daf ñu dal gens, Karim wad daf ñu dal ci Khalifa Sall mais nak jeunesse bi amone jamono Khalifa Sall ay 14 ans 15 ans jeunesse des tay dañu am 18 ans 20 ans jeunesse bi jamonoy Idrissa Seck 8 ans tay dañu am 25 ans. jeunesse bi tey dañoo dem ba xam ni nguur du war a mën a bëgg sànq benn doomu sénégalais rek ne xaar ma sànq ko xaar ma sacrifier ko léegi xolu sénégalais yi ñooy sot te lii deux mille vingt quatre ak wala deux mille vingt trois képp ku mënti toog même sonko bi bu toogee suba dina tiit pour jalgati parce que xam na ni bu jalgatee lu ko sénégalais yi bëgg bëgg bëgg lu ñuy naan sama bopp moo ma la gënal du bañ naa la. lii leçon la Sonko wax na leen ko sànq leçon la pour ñii di ñëwaat fii ak l'an de mille cent ku toogati xam ne askan bi moo la fal heure bu la bëggee dóor arrêt da lay dóor arrêt parce que ñii doon falu yëpp dañ yaakaar ne ñooy buur rek di mi ku leen neex rek ñu woo police tëj la ku leen neex rek ñu woo désormais dootul am jékki-jékki rek woo benn politicien rek kereel ko rek yi ñàkk fayda nar ko dugal kaso dootuñu ko may politicien loolu dugal nañ ko ci bopp sénégalais ci bopp ndaw ñi ndaw ñi yee nañ leen nee nañ leen yéen xale yi. bu leen nangooti ñuy sacrifier benn sénégalais lu ñàkk fayda dëkk de yoon nag la ñu bëgg ku def naka su dul noonu tëjal mais du ñu nangu ñu jàpp ku mel ni Bougazelli si ay milliards de faux billets justice def liggéeyam yóbbu gendarmerie ñu téye ko loxo si poos yóbbu ko tëj ko ni mbir mi yow da mu tëdd benn deux mois trois mois ñu libéré ko loolu dootul amati. ay Job Isaac xaw ma lan ak lan dem violé benn xale boo xam ne mineur la ba ëmbal ko ba am ak moom doom ñu tëj ko lu mu dee dee mu waroon tëdd dix ans tëddul dix an ba mu tëdd benn deux mois ñu ne nañ ko bàyyi am na ay négociation am na yoo xam ne kenn du ko négocier yoon yoon la loi loi la parce que instant bi ci kaso bi am na doomu baadoo boo xam ne yëmbal la dëkk dafa fóon rek benn xale bu jigéen ñu ne daf ko bu yoon bu violé nga dem ñu sosal ko tëj ko dix ans léegi koo xam ne nag ab kilifa lay doon wala xam benn nit ci nguur bi def bêtisam yow yaay génn parce que gis nañu fii Ousmane Ngom nekkoon ancien ministre de l'intérieur ñu jël sunu hélicoptère jël waa bip fekk ko si benn hôtel may ñu ko sax fu mu solee tubéyam kërti kërti ko mënut yenu yóbbu andi Dakar mais animu tey fu mu mujj mu ngi doxe ay soxla ay awakudu njaay ñu dégg IGE nga xam ne IGE mooy saytu sunu xaalis fu muy dugg ku sàcc ak ku sàccut IGE génnee fii ne awa ko du njaay bii de def na ay surfacturation sàcc na xaalis nii la toll ba ñu nar ko tëj ci kaso bi awa ko du njaay boobu ba léegi kenn tëju ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu baaxul ci réew réew dafay am justice réew dafay am justice ndaw ñi gis na lii kat du jaay doole buur bu tooñee ñu tëj baadoola bu tooñee ñu tëj wala ñu bal lépp réew noonu lay doxee quoi réew noonu lay doxee te loolu yaakaar naa ne buñ ko defee ñu bañati faral naan man Macky faral wala Sonko faral nañu faral Sénégal bu Sonko jàddee ñu ne ko Sonko jàdd nga bu Macky jàddee ñu ne ko Macky jàdd nga yàlla moo bëgg dëgg mais mënuñu def Sonko jàdd ñu ne ko jàdd nga Macky jàdd ñu ne ko Macky jaddo parce que lan parce que Macky mooy président parce que Macky moo leen di may xar parce que leen di may tissu parce que leen di xaalis bi lañ Macky Sall di jox ay billet Makka di ko jox suñu yenn paay suñu yenn mairie xaalis boobu fan la ko Macky Sall jëlee béyu ko dugub béyu gerte suñu xaalisu askan la tam xarit buy ñëw ñu ne Macky Sall jënd na trois 3000 nag jox na waa Pikine jox na waa Caaroy ñan la koy jox waa APR la koy jox xaalis bi du xaalis waa APR xaalisu Sénégal la bu demee ba mënul jox Sénégal yépp na tey xaalis bi si mu mu bañ ko joxe wala ñu dem dugal ko si hôpital Dantec wala kii sax jënd ko ay rajo wala leneen mais mënatuñ fi fal système boo xamante ni bu ñëwee dafay toog rek ay militant loolu dafa war a jug loolu amul Europe parce que man maa ngi ni boo nekkee France fii lu mu dee ba ngay wuti liggéey laaju ñu ma ban parti nga bokk ba mu ñëwee fii ne dama bëgg losement neewuñu ma kan nga voté loon buñ ma laajoon kan nga voté loon ma ne ah man voté bu la neexoon ñu ne ah comme voté lool doo am benn opportunité su ñun doo am dara su ñun mais xooluñu loolu fii da ngay gis monsieur le maire maire ville bu ñëwee pour def benn dara si koñ bi du sol kase kasketu politique bi t-shirt lay sol conseil yi ñëw sol 17 mu ñëw amul géwél tëgg ndënd amul musicien yuuxu amul dara ñu ñëw def liggéey bi ku ne dem mais xoolal sunu Sénégal def mu nekkee Sénégal ñaata xaalis la ñu yàq si ay ay ay futilités comme tey campagne électorale bu jotee ñaata million la ñuy jël fay ko benn mbër exemple tey comme Modou parcelle pour mu génn taxaw ci Modou bi def défilé ak Amadou Ba rek dañ koy jox ay vingtaine de million exemple Balla Gaye aline Sall jël ko ba ko benn cinquantaine de millions pour mu yegg ci oto Alioune Sall. parce que xaalis boobu du xaalis bu ñu liggéey tey bu doon tey Macky Sall wala ay nitam dañoo jël benn cinquante mille jënd ko ay cuuj di defar lekk naan ba jaay ba am bénéfice deux mille cinq cent trois mille doo gaaw a di maye noonu xaalis di ko pasar pasare mais xaalis bu ñuy rocci la tey Farba Ngom ñaata conteneur lay wàccee Sénégal bu campagne jotee ay casquette ak ay t-shirt ak ay sifflet ak ay ñax xamul ay milliards xaalis boobu xejoon na si ñun. خالص boobu xajoon na نيون il faut ñu arrêter lolu man élection passé na fi élection do xam sax tay élection amna fi do gis mbedd yi ay affiche do gis ay wo ay artiste di teug do gis ñu duggal ci nit ñi ay jaga jaay lolu yeb war na mëna dak surtout génération bi ñu nekk ni nak sama gaay gis nga xex bi ñuy xex ni war nañu may ñu commencer changer suñu mentalité Sonko buy def campagne jaratul muy defar ay t-shirt xaalis bu muy defaree ay t-shirt mën na ko dem sax hôpital Dantec même bu dee nekkul président mu génne fa benn dix million xool malaati fëta du mu joxe exemple laay joxe ay t-shirt yi kuy dem campagne solal sa t-shirtu bopp parce que tey si t-shirt yi da ngay gis ñu fay si vingt millions pour t-shirt ñu sol ko benn ngoon après ñu sànni t-shirt yooyu loolu daf ñu tardel affiche yi ñuy defar affiche yi ñu jël photo nit ki teint ko rafetal ko ba mu rafet def ay infographique yooyu xam ngeen ñaata milliards la affiche yooyu di jar affiche yi ngeen di gis kayit yi ay kayit kese kayit ay milliards la milliards yooyu xëy na suñuy suñuy askan ñun réer suñu amuñu dara loolu dafa war a jeex foog système bi ak génération bi xeex bi ñuy xeex nii faw mu am ñu lu mu ñu andil du xeex rek taal pëna nii déedéet faw ñu jël si ay jàngat ne waaw élection locale a ngi ñëw bëgguñu benn politicien jël ay de dizaine de million di ko def si ay tiset déedéet buñ ko defee si ay soixante-dix jox nit ñi baax na parce que di nga ko def sa biir mais dem commander t dem commandé sifflet dem commandé ay banderole dem commandé ay bracelet ay flyers ak yi kenn xamul xaalis bu dul jeex la jamono jooju jeunesse bi ñu ngi soxla ku leen lebal tey Sénégal am na ñoo xam ne dañu naan eh man bu ma amoon benn deux cent mille tey bu ma amoon deux cent mille si deux mois ma am un million. wallahi am na jeunes yu bëri toog foofu am seen i projet même poulailler poulailler kese projet la poulailler nga dem nga jënd cuuj. benn trois cent franc xaw ma quatre cent xaw ma six cent la doon jar mujj bi cuuj nga am deux cent mille lu mu dee dee nga jënd euh, ay cent cuuj nga commencé yar jënd say aliment jënd say affaire cuuj bu màggee nga jaay benn deux mille cinq cent wala trois mille lu mu nee dee di nga am benn bénéfice cent mille chaque weer wala chaque deux mois nga am cent mille loolu tane na ci benn un an lu mu dee dee léegi nga am un million wala nga am huit cent mille mais dëkk boo xamante ni foo tourné nit ñi léegi ay palaatu gerte la ñuy jaay gerte caaf ay France fii wala Europe dangay dox ba gis nit yenu palaatam gerte caaf boo xam ne boo ko calculer bu jaayee gerte caaf bi ba mu daj du mot huit cent francs CFA loolu warul dakk ngeen xool ñaata sunuy yaay ñooy toog ay croisement Cambérène ay buntu Pikine ay rond-point bi ay postu Thiaroye ay Castor ñu teg benn palaat nga xool palaat ba lu ñu fay jaay caaf caaf juróomi dërëm caaf fukki dërëm nga xool palaat bi yëpp boo ñëw ne maire jaay ma palaatu caaf bi motul téeméer parce que benn caaf fukki dërëm dix caaf rek cinq cent la te palaat bi lu fay nekk du ma sax dix caaf nga saaf nga sonn nga def mbuus nga sonn nga jaay yëpp doo am sax bénéfice su fanweer war nañu dépasser foofu war na nañu bàyyi ngoon angle yi ay fonde nit ñi di jaay ay fonde ci angle bi loolu yëpp war na jeex Sénégal ñun bu ñu réussirul kañ la réussir parce que loo xamante ni ñu ne woon depuis Senghor ñëw Diouf yàgg na ba vingt et unième siècle nga xam ne àdduna mu ngi neex alal mu ngi am ñun koñ boo dem léegi jaaykat fonde yi dañoo planté wu si koñ yi dañ fa bëri xam nga sax ba ñuy nekk booy souvent jaaykat fonde bëriwul benn ngay gis si koñ bi mais yéen ñii dama seetaan yéen ñii dëkk parcelle unité 4 unité 5 Grand Yoff Patte d'Oie Dalifort Yaraax Cité Soprim ñaata maire jaaykatu fonde ñoo nekk seen i angle koñ ñaata maire jaaykatu fonde bëri na ñaata nit ñooy jaay ay sandwich sandwich fukki dërëm xaw ma lan benn brochette fukki dërëm loolu yëpp parce que nit ñi féexuñu nit ñi amuñu bu nit ñi amoon xaalis di dem di liggéey di fayeeku weer lu mot sëkk bu ñu jëndee dañu jënd seen ceeb ration weer teg ko seen kër jënd yàpp dugal seeni frigo chaque jour dañuy togg ndékki togg añ togg reer doo gisati nit di génn si mbedd di lekk mais xool leen Sénégal léegi sama gars yi ñëpp ñu gis si mbedd bi la ñuy añee si la ñuy reeree kenn lekkatul seen biir kër lekkatul sa biir kër loolu tey président war ngeen xuppi seen bët xam nit ñi sonn nanu ñaata dëkk bi ngeen di gis léegi booy koo si gis léegi dawal dawalkatu saret la sarat bu njëkk ba boko ko Dakar c'était juste pour yóbbu yenn ki sax tool yi ay ñax ak yi kenn xamut mais léegi wëtéer yi dañ koy def liggéey ay yobul fi yobul fi pour def ko business boy buñ ci dàq école dawal dawalkatu wëtéer la boy buñ ci dàq école C2 C3 mu dem wëtéer ñaata boy lañu woné wone biir Sénégal ñu japp 15 bi di 15 décourager sen life ñaata jeunesse bobu tay am tay 18 ans 19 ans 20 ans 22 ans booy boo si gis mu ngi toll ni ñey mais amul fu mu jàpp da ngay gis mu yeewu yee yaayam yaay yaay ndekkee guma de yaay yaay ndekkee guma yéen a may seetaan parce que li may wax nii daf ma dal man daf ma dal da ngay yeewu dem sa papa ne ko papa doo ma may foofu deux cent papa fan lay jëlee papa yi amatuñu suñu papa yi amatuñu suñu yaay yi amatuñu parce que salaire yi ñu doon am yi amatuñu liggéeyatuñu suñu papa yi bëri tey Sénégal léegi retraité nañu liggéeyatuñu amatuñu facture courant ñëw que 100 000 francs yow sa salaire bu ñuy fay sa papa soixante lañ koy papa yi bari légui gardien ñu Sénégal si 10 personnes gis yépp papa gardiennage la def gardiennage muy garde magasin wala garde pharmacie wala garde ay calando wala garde ay ay ay ay ay kenn xamut lan lañ risque ngay fayee ko ay soixante mille soixante Europe fii ñu nekk ñi ñi di fi garder boo leen doon fay euros bëgguñu parce que bakkan la ñuy jaay parce que fi nga def sa bagage ay millions ki millions la nga bëgg ñëw di gardeloo nit ki benn soixante mille wala cinquante mille xam nga ni loolu pauvreté mënul weestu loolu. jamono jooju ministre bi ngay garder ci biir këram ministre bi coffre fort bu mu def ci kër gi rek ay milliards la 4x4 bi mu garé ci buntu kër gi 4 4 bi ngay di garder

xoolal tey Orange Money qu'est-ce que Orange Money xam naa yéen a ngi may seetaan ñu bëri ndeysaan surtout jigéen ñi étudiante yi étudiante boo si wax mu ne la dama bëgg liggéey bu ma amee Orange Money sax baax na bu ma amee jaay wari sax baax na bu ma amee nekk ci MoneyGram sax baax na lan lañ leen di fay amul ku si am lu ëpp soixante mille huit heures ngay xëy wàcc ay dix huit heures wala ay dix neuf heures booy ñibbi da ngay paas booy ñëw da ngay paas sa ndékki yaa koy jox sa bopp weer soixante mille. jànk yi taxaw rond-point Liberté 6 dem leen rond-point Liberté 6 ñaata jigéen ngeen gis foofu ñu toog mel ni dëj moo fa am fees fa dell jom mi sëg bi def nii koo si gis mu ngi jël mburu ndeysaan di yëy foofu la ñuy toog nit ñëw jël leen pour jànk lan lañ leen di fay ñi fay toog yëpp pour nit am fa fukki junni jàmbaar nga ñooñu la ñuy tuumaal après di lañ tëj camp bi camp bi ñu fa nekk yëpp mooy jànk yi nekk ay rond-point Liberté 6 lekku lekkuñu naanuñu seeni yenn doom yi ñoo ñëw ci kër gi sàcc seeni or ba pare ñu ëlbati ko tuumaal ko jànq bi loolu mooy ba léegi ñu ngi teg nit ñi njaameel yàlla xam na ko Sénégal lañ dëkk parce que yow jànq bi amoo sax loo jëlee avocat boo eggee tribunal sa ñaawaay parce que di nga toog weer sax doo sangu juge bi da lay xool du la sax déglu dugal ko si kaso bi luñ lay toppee yaa ko def sàcc nga parce que lan parce que Drianke bu xeesal bi takk ay oram moo ñëw andi ko police Grand Yoff boo eggee doo wax loolu mu ngi Sénégal loolu mu ngi Sénégal xam ngeen si dara parfois ñu jël benn jànk ñëw ami ana sama or yi fekk ami yëggul tinul fekk borom or bi doomam bu góor bu nekk si kër gi moo daaj ba sàcc lépp wala doomam bu jigéen sàcc ba jox ko ay faram mais borom kër gi bu ñëwee ami la koy ami la koy tuumaal wala Mamadou gardien bi ñuy këlëng këlëng ngi yóbbu police grand wala police parcelle boo eggee doo wax gardien ba doo wax parce que amoo baat parce que da un ñaaw nga taxaw nga ci mbedd bi poussière bi dal dugg naaj bi lakk la tilim nga dangay egg police rek ñu xool la sa kanam bi rek ñu juge la ne la yow yaa def rek mbéj la bu buñ la mbéjee sax àdduna jaxasoo da tiit sax ba ne yow la fekk du fekk fekk mosoo gis luy or sunu frères yi bëri ñu gis si bi loola leen sànq sœur yi bari ñu ngi si kaso bi barke alcorane karim lool mo leen sank amuñu police souvent bu ñuy yërëm police souvent bo xéssul bo takul or bo solul ay verre yu luxe té ngandi ay fan boo demee foofu subhanallah police jotté leen fofu li ngeen li may wax ni xam ngeen ci dara li may wax ni xam ngeen ci dara muy police golf muy police parcel muy police Grand Yoff muy ay police tiaray ay police yëmbal bés bu ne ñu dugal fa nit boo xam ne deful waxul da ngay gis benn diriyanke ci koñ bi rek doon ab gelu ministre bi wala gelu directeur bi di jaay jongoma ñëw gis booy bi yóbbu da ngay egg rek bu ñu mbéj la dugal la si violon bi bindal la nga signé ñu defeere la nga dem cent mètres ñu tëj la ay un mois ak ay deux mois fan nañu nit ñi jëm jeunesse bi tey non man dama jàngat sama jeunesse su réew tey mën naa ni jeunesse bi dañoo bëri tey xale yi yi génération 2000, 2000 bi deux ak deux vingt et un ans vingt un ans bi Sénégal ñoo gën a Sénégal mais amuñu dara lu ñu Nous sama classe gi moom waxatuma ko sama génération borom quarante ans nous 35 ans nous ñoo une a jommi ñëpp ñoom ñoo gën a jommi ñëpp moo ñu C'est ñu bari léegi di gis nga leen kër bi rek kër bi koo si gis la la la la la la lépp ñu bari ndeysaan daw dépense rek nooy def dem toog si kër sëriñ ba daw dépense nooy def da ngay toll ponkalu jëmm saxi si kim toog sa këru baay xale yi toog maire bi toog ñu teg boolu añ ba fekk liibaru ceeb la ñu togg bu ñu nee bisimilah ñaari dank ngay dank uh, cin ba jeex uh, bool ba jeex dund nañ ko banlieue lañ dëkk sama gars yi li may wax ni xëy na ñiy dëkk Almadies wala ñiy dëkk ay Sacré-Cœur yi yëguñu galère bu waa banlieue bi di dund dama dëkk si précarité bi dali fort ñu bëri tey bu ñu ndekkee du ñu añ wala bu ñu añee du ñu reer yàlla xam na ko waxuma la Pikine dama li yëmbal waaye yëmbal xam naa ñu ngi may seetaan ñu ngi naan Kaliphone bi man lay waxal yëmbal ay benn baraak ay sute jum koob ay sans fil la géejowaay daagu daanak kenn xamul subhanallah c'est que ñun ñoo amul état boo xam ne day taxaw sumu askan état buy taxaw suñu askan ñun loolu lañu amul ndeysaan xoola Europe bi ñu nekk nii sama gaa yi na leen yàlla andi Europe waay ndeysaan moo tax jeunesse bu bëri ñaanalu ma leen ko yàlla jël nañu gaal yi ñëw xam nañ fii fii ngay fanaan ci mbedd sax moo gën nga nekk Sénégal di fanaan ci néeg ci kër parce que fii lu mu dee dee boo yeewoo sax mën nga gis fenn restaurant di kër yi am na fi ay restaurant di kër ay association la association ñi nekk Paris ma la nekk France xam nañ ne li amul fekk ay tubaab la ñooy def ay restaurant di kër lañ ko tuddee chaque semaine mardi wala mercredi yaay na jour booy dem fii yow lay neex da ngay dem nga inscrire nga jël jour mardi wala lundi wala mercredi yaa xam nga andi sa saak boo ñëwee ñu jox la ginaar jox la pomme jox la dawlin jox la meew jox la saabu jox la pâte dentifrice jox la boo jëlee mardi tay bi mardi prochain ngay ñëwaat ñi nekk France fii xam nañ li ma leen wax ñi nekk France fii xam nañ li ma leen di wax loolu yëpp ndimbal la gars yi bëri fii dañuy am xaalis sax mais dañuy dem ci association yooyu parce que association yooyu yu bari tay union européenne sax mo leen di financer ñeneen ñi dañuy dem ci ngand euh, restaurant yi nganday kii magasin yi nganday comme benn produit sax bu naree varier comme fekk une semaine wala deux semaines wala un mois ñu dem récupérer ko jël ko jox ko nit ki tey bu ñu organiser woon Sénégal yooyu yëpp mënoon na fa nekk sarax si rek asaka gi sunu ministre sommes sunu député buñ doon avons asaka mënoon nañ def ay fondation xam nga comme fondation Mariam affaire la comme fondation ay Elisabeth Diouf bi passé euh, bu bu bi bu jabar Abdou Diouf Nous mais fondation Sénégal souvent ay fondation politique la bo bokul ci RSA RSA waxuma ko wala RSA RSA RSA moom bu ma ko fi waxee moom gars yi moom suba dañuy génnaat di ñaxtu si télé bi ne dañuy rey Macky Sall RSA bi mooy maanaam comme li mu leen doon wax keroog da nga fiy toog nga am sa doom sa doom weer bu nekk état française fay sa doom xaalis nga bu nekkee Sénégal buñ laaxee da ngeen ni du dëgg bëri ngeen seeni sœurs yi nekk fii seeni frères yi nekk fii am seeni doom fii boo fi nekkee nga am cinq doom cinq chaque fin du mois état francaise day fay sa doom bu ne xaalis doom yi day am ñoom deux cent euros ñi am 300 euros boko ko rek presque nek na 1000 euros lolu dañ la ko may te chaque weer la bo nga am dom, ngay matu amna jigen mo rek barki de mu ne califon ma ne dama matu ñu yëkëti 1000 euros ñu jox mu lolu tuba bee la koy bo lek sok souri bu rafet reetaan la ne la bon courage ñaanal la yalla ñun lutax lolu mënul am sunu rew yow da ngay nek Sénégal nga nek jigen nga nekk jigéen wéru toll sa jour boo war a matu tombeek weer bu sori ñu fëgg la guddi alaaji ani nga mu jóg làmb poos dencul mille francs souvent ñu naan ay nit ñi dañu ñàkk jom parce que sa jabar ëmb na amaloo sax loo ko jënde ordonnance du loolu parce que boo lijjantee dara balaa nga naan yaa ngi xaar doom buy juddu jour bu nga yeew foog nga ndékki foog nga añ foog nga reer alaaji bi lu mu dajale jour boobu la koy joxe mburu ceeb courant ndox weer yi muy gaawee jigéen wérut neuf mois ak gaaw nga jékki-jékki rek ñu ne la jigéen bi soxna si tey lay matu soxna si tey lay matu ñu yee la guddi nga làmb sa poos mille francs dencoo ko ñu ne yeewu leen dëkkandoo bi yoroon na fi benn oto mu dimbali leen yóbbu leen Nabil Souker nga egg Nabil Souker wala beneen hôpital balaa ñu lay recevoir di la dugal ci biir dañ leen a jaaral kees boo jaarul kees nga fay ticket won ko gars yi duñ la duñ la dalal loolu amul fii fii Europe fii fii amul jaaral kees de du ma la ne doo jaar kees mais balaa ñu ne jaaral kees day fekk dem nga gis docteur bi surtout nag boo ñëwee cas d'urgence ñëw bopp buy toj wala ëmb kenn du la ne dañ lay accompagner dañuy daw ñëw yow ñi la gunge dañ leen di pousse ñoom docteur yi ñooy daw ñëw jël sari yow dañuy yàqamti sa jouru génn sax boo naree génn docteur yi souvent dañu ne noonu génn koo dese nga fi ay fan. sécurité fii dañ ko santé sa ganewuñ ko mais xoolal Grand Yoff da ngay dem Grand Yoff gis agresseur jam fa nit ñu yenn yóbbu sétéo deret ba di wala gaan nga ñëw ñu ne dagg leen ticket dagg leen ticket mais balaa nga naa nit ki dagg leen ticket balaa nga nit ki dagg leen ticket taxawu leen ko ba pare taxawu leen ko ba faj ko. loolu mooy priorité politique boobu tay tubaab bi def lu tax ñun politique boobu tey ñun sunu sunu sunu njiit yi mënuñu ko def lu tax politique boobu tey sama gars yi sunu njiit yi mënuñu ko def sunu njiit lu tax mënuñu def politique boobu dimbali seen askan taxaw seen askan mais duñ ko def man dama yaakaar ne sunu njiiti Afrique ñoom dañuy ñee ñoom dañuy naan booy boo leen dimbalee ba ñu am alal ñoom dañuy dañuy dañuy toog sa kaw ñoom dañ ñu soxore quoi dañ ñu ñee ñoom bëgg nañu baadoola na doon baadoola walaa kaana na doon walaa kaana ilaa yow mi diin ñii doon lekk ceebu keccax ba léegi yéen lekk ceebu keccax fii boo rombee koñ fii bu ñuy tuuri mbalis dangay dem ci mbalis yi ngay for ay montre ngay dem si mbalis yi for téléphone nga dem si mbalis yi gis fa écran plat télé nga dem si mbalis bi gis ka frigo nga dem si mbalis yi gis ngandi cuisinière à gaz fekk yëpp yu baax la yooyu la ngay gis sax ñu koy andiwaat réew ma nan la ñu mën a def ba am dund bu neex boobu parce que fii du ñu fal nguur nguur bi di jaay góox yi leex nguur bi day xam ne ñii kat ma dañ maa fal pour ma liggéey leen xaaral ma taxawu leen waaye fii sunu réew sant ndeysaan baadoole bi dafa sonn néew di doole bi car rapide ñun bu ñu juddoo ba léegi ñu ngi yor car rapide ba may jógee Sénégal maa ngi fa bàyyi car rapide sama doom bu jigéen léegi fu mu ne nii buy màggit day yëg car rapide di continuer noonu bés bu amee jëkkër tamit doomam ñëw yëg car rapide parce que ñun car rapide yi dañ ko fekk fii man damaa judd fi fekk car rapide loolu mooy ñun suñu papa yi ñu ngi doon yëg car rapide yéen ñii di ma seetaan am cinquante ans yéen a ngi rapide ñu ñu ñëw nekk si trente huit ans ñu ngi doon yëg car rapide car rapide yi ñoo fa nekkaat ba booy am léegi douze ans treize ans yéen a ngi yëg car rapide sunu doom yi nar a màgg ñu ngi yëg car rapide seen doom yi ñëwaat yëg car rapide kañ la ñuy dund lu nooy ñun kañ lañuy ñuy dund noblesse kañ la ñuy dund ajana kañ la ñuy dund ajana kañ la ñuy dund ajana lu ñu xamaloon rek la ñu xam politicien bu toog mbokkam politicien bu toog boppam loolu la leen foog naa yaakaar naa ni moo tax tey jeunesse bu bëri am yaakaar ci Ousmane Sonko bi parce que lu mu dugal seen bopp la quoi mooy bës bu ngeen ma falee li fi doon am yëpp dootu fi amati yenn privilège ministre yi yenn privilège président yi yenn privilège assemblée nationale loolu yëpp daf koy wàññi loolu la duggal ci boppu nit ñi te yaakaar naa ni nag te loolu sañul tas yaakaaru nit ñi de xalaatu ko de xalaatu ko de moo tax jamono ji nag sénégalais yëpp jël seen bopp jox ko Ousmane Sonko parce que dafa nekk loo xamante ni lu raar biir Sénégal ñu jël benn ni dugal ko ci benn béréb nga nekk fa presque quinze ans mu soo fa sàcc deux centimes bariwul Sénégal de yombul de yombul de léegi kooku nag ba mu defee jàngatam nit ñi dañoo ne kii ku jub la kii ku jub la nit ñi ñoo ne Ousmane Sonko dafa jub parce que Ousmane Sonko da leen won njub parce que nga nekk ci benn béréb foo xam ne xaalis day dugg vingt quatre heures sur vingt quatre pendant quinze ans pendant quinze ans mosoo fa jël cinq cent mille allahu akbar jamono jii de Mame booy Diao moo nekk domaine ba mu toogee amagul un an mais lu mu fa jël ay millions la te man dama ci am seede bu bëri barke alxuraanul karim ay millions parce que am na benn gaañ sax buy commandé fii sama copain boobu bii jàllo xam naa dinaa ko weeje tey fan yële si ginnaaw dafa rek toog Facebook am di ko dal di naan maam booy jaaw yow booy yi ngay jox yenn booy doo ñu jox mu woo ko biirum un million la ko jox <laughs> bii jàllo di nga ma baal nag naa la ko un million ak iPhone 8 plus fu maam booy jaaw DG des domaines jëlee un million bu mu jox bii jàllo boobu sama copain bi di dugg fii tout le temps di ma sànni xeer sama doomu ndey la nag fan la jëlee loolu te fu mu jëlee un million jox bi jàllo jël na fa 5 million jox gorom jox ay gelam jox ay yenn chamiñam même buy dem Kolda di ànd ak yenn boyam yi pour ñu dem fatol ko billahi wallahi wa ta'ala avion la leen di jël avion barke alquran avion sama ba mel avion Kolda Dakar Kolda

wala don jaay këriñ ba am bénéfice du jël xaalis bobu tay di jëlal ay nit ay avion wallahi wala sin barke alxuraan té lolu duñ ko weddi numéro mu ngi nii sama numéro mam boy jaaw DG domaine boy yi mu ko defaral xam nañ ma ñu may seetaan ni am na ñoo xam sax dañuy dugg sama live te xam nañ ne fénuma lolu dañuy statut sax diko statut ma ngi si avion bi te du benn du ñaar du ñett Kolda de Dakar Kolda nga jëlal nit ñi ay avion Macky Sall yëgul loolu moo tax nag nit ñi ñoo war a dimbali Macky Sall wax ko loolu ne ko Macky Sall sa directeur impôt domaine mii nga teg fii yaakaaroon ne dina liggéey mu ngi jël ay nit di leen yóbbu fii Kolda rek avion la leen di dugalal wallahi wal azim xam nga loolu dangay waaru dangay waaru du question du question dañoo soxoor nit ki wala dañoo añaane nit ki mais war nañu xoolaat directeur bu ñu la tegee si béréb waaw sama copain Abdourahmane Fall waaw kay Abdourahmane Fall ngi nii nee na bi <laughs> ah, Big sama sama copain ña mos na mais Abdourahmane Fall xam nga si dara jarul ngay saale yaa ngi si groupe WhatsApp yi <laughs> jour ba mu leen dal foofu ma ne Big Diallo da jot si un million yi mu ne jot naa waaye daa am ñu ma àndal jox naa kii deux cent cinquante mille kii deux cent cinquante mille tey <laughs> sama gars yi fu mu toll nii nag seen groupe whatsapp bi comme ni ma leen ko waxee sama xarit yëpp a ngi foofu te luñ fo wax manqué xam nga sànq tegal naa leen benn audio boo xam ne Moussa xam nga ni kii Moussa Sow yow gàcce nga. Macky Sall nar a def discours à la ngay dugg si whatsapp bi naan gars yi mobilisons nous nu nous mobilisons nous dina am beneen audio whatsapp bu leen tegalaat léegi ci groupe APR yi la jógee benn cadre la ci APR moo ko wax dina leen ko tegal léegi te audio yi bëri na nag audio yi bëri na trop. maa dul bëgg di teg gars yi rek xam nga rek sam ñaan Kaliphone léegi dama koy tiit duma ko audio <laughs> maa ngi nuyu sama sister sama sister Mati yaa ngi may seetaan xam naa Mati bu tee te mu nekk léegi Amérique sama xarit la dem su ko di mu ma wax ni <laughs> Mati waaye fu ma nag yow sama <laughs> yi daa am ñu ñu koy def ak ñu ko dul def mais ñi may woo nii yëpp enregistré wu ma si kenn am mbaam yoo xam ne moom foog ngay enregistré di teg preuve mais xam nga matti sama waxtaan ak moom loolu soxlawul àdduna xam ainsi de suite quoi. sama yaay maam jaara faam député démb tamit ma may woo sama waxtaan ak moom concerné wul keneen quoi mais mbaam ko quoi mbaam yi yenn mbaam yi yéen a ma gën xam ko <laughs> tey ki ne na Kali yërëmal waa APR non xam nga Moussa Sow tegal naa leen audio bi mu dugg ne gars yi le président va avons jël réseaux sociaux yi avons hmm? nañu réseaux sociaux Les réseaux sociaux yi lan ngeen si président Moussa Sow président da jox 7 millions chaque weer nga jël di jox jox say boy wari ay 25 000, 30 trente pour nous, lay

li nga xamante ne moom ngay doxalee ci ni nga ko war a doxalee ci réew mi muy sa xalaat. waaw dañuy déglu bu ndaw bi rek après ma ñëw. Macky sonn na. dama toog dem en tant que citoyen en tant que responsable boobu di xeex loo xamante ne combat démocratie la kon jàpp naa ni fépp foo xamante ne nit woote na fa te loo xamante ne luy defar euh, doxal réew mi la ak askan wi dinaa ci mën a euh, dem. nga baal ma si biir loolu mooy tekki ni kon demoo fa pour euh, bokk gis-gis. xam nga non dama fa dem man dama woo xam nga ñun wóoruñu pour ay ay bokk gis-gis yooyu la ñuy xeexal parti laa bokk muy bokk gis-gis waaye wóoruñu si turu bokk gis-gis dañoo waxal. Ousmane merci. Dip Tatam Tall bokkoon ci acteurs naa la frère. Fatima Ndiaye nuyu naa la Fatima Fatima yaay. ak juróom benn téeméer yoo xam ne am na ay gaañu gaañu bu ne dëgg lañ ci wax loolu nag lañ ci wax rafetlu nañ ko ba pare demande état Sénégal pour que maanaam moom mu ndàmp leen loolu tamit rafetlu nañ ko. li nga xam ne moom laajte wax rek mooy man combat bi may combat du ko Ousmane Sénégal moo tax may combat ma ko waxoon keroog ba nga ko tàmbalee ma ne dañ ko bëgg a jaay doole euh, faagaagal ko pour que Macky Sall. Dieng Saala Adama nuyu naa la mu teg fi mu moom mu ñëw loolu nag ñun duñu ko nangu en tant que surtout en tant république loolu moo taxoon. fil filu RC Paco Diaz. Macky Macky moo woote wàllu. Macky Sall moo woo sëriñ si pour wàllu ndax tey jii bu woote wutoon démb sëriñ def leen def loolu Macky Sall tey vingt heures war ko woon a fekk ci réew mi lu mel naa leen ma ndax manifestation yi kon du dakk kon bu fekkente ni moom dem na ba jaaxle. Mhm. benn côté bi day daal di woo sëriñ ne kaay leen ngeen wàllu ma. bu mhm. ma ñëwee da ngeen ñëw si man mel na man maa leen wax bu ko defee ngeen dem si ñeneen génn si presse bi yéen la askan bi dégg gis nga boo déggee ko sax mu ni maa ngi remercier kilifa diine yi maa ngi sant kilifa diine kilifa diine yoo xamante ni depuis bu a sëriñ Moussa na ci suuf si yàlla euh, Moussa. waaw oh, euh, xam mooy ni ko boo demee na nga naa ko la ko war a wax mu ne ko wax ko la ko war a wax. yéen ñëpp déggoon ngeen léegi dama leen di tegal waa APR wax quoi leen di tegal waa APR. déglu leen na ah, waa APR seen groupe bi moom whatsapp moo tax léegi gars yi dañu muuma gars yi léegi ay texte lañuy ñuy bind <laughs> mujj bi texte yi lañ may yónnee <laughs> déglu leen waa APR lu nu wax si sorti Ousmane Sonko bi ak sorti Macky sàll bi déglu leen waxtaan waa APR. waaw asalaamaaleykum. gars leen waxtaan waa APR ah. Euh, ñu ngi leen di Euh, Mansour le coordinateur coordinateur APR commune de Niassène. coordinateur. Oui, mais au fait euh, lui, euh, c'est un soulagement C'est un grand soulagement <laughs> pour le pays mais c'est une défaite. considérable pour la politique du président de la République. parce que as soo les image ici, si euh, vraiment c'est comme si les gens ont tourné le dos au président Macky Sall. Mm-hmm. Ousmane Sonko. <laughs> université ñëpp génn nañ di bàbbeeku dem kër Ousmane Sonko. <laughs> politiquement c'est une victoire de Ousmane Sonko. Hmm. C'est une défaite considérable si Mbiri yi yoo xam ne dañuy wax politique président Macky Sall. mais c'est un soulagement. Mohamed Cissé merci réew encore une fois jàmm mu ngi commencé ñëw. mais lu mu siy yokk mooy que euh, enfin lii leçon là. pour man leçon là. pour président Macky Sall leçon la également pour. ñi nga xam ne tey Macky Sall moo leen fal nommé leen jox leen ay nombre tànk ñu nekk ci département yi nekk ci région yi sincèrement sincèrement bu ñu waxee yàlla rek tax euh, gars yi jàppalu ñu président Macky Sall dimbaluñ ko au contraire dañ koy yàqal lii def ñu permettre suñu jógee si situation bi nii. Amina Suyad nuyu naa la Amina. le hmm. parti dafa ndëpp national les autorités du parti. ñoo xam ne merci Ndiaga. encore une fois parti bi dafa dañ leen fàtte. encore une fois c'est le moment le président Macky Sall defaat euh, vraiment xoolaat euh, euh, retour rétroviseur coalition Benno Bokk Yaakaar dans sa majorité. Mousso eh, Mousso nuyu naa la yow Mousso Sénégal. est-ce que réellement gars yi ñu ngi dimbale président Macky Sall dimbaluñu. Eh, gars yi mu baax mi mais bëgg. c'est un mécontentement national moom lañ gis. Hmm. boo gisee Dakar nu mu mel ak nit ñi ni ñuy tawee wutali ko Ousmane Sonko mais c'est extraordinaire politiquement mais. j'ai envie de parler. waa APR jàpp nañu jàpp nañu de. mais lolu lu wara jangat la C'est un débat profond qu'on doit mettre dans les dans la. parole. plateforme Diop merci. vraiment ni watan. la jeunesse bu faloon ma faloon Macky 2012 Franco 2019 tey dañoo tourner le dos au président Macky Sall lolu mom la constater ci manifestation tay bi ni. Mhm. Tay police yi bàyyi nit ñi dañu nañ barrage yi xale yaa ngi daw partout au niveau Dakar te Woutli lii que Ousmane Sonko. so loolu mooy victoire politique boo xam ne ni moom la am tey. mu nekk une défaite politique bu pouvoir bi am ak coalition bu mu àndal. mais nag c' est la l'occasion pour nous bu ñu jógee si ñu defal parti bi un ndëpp national. parce que vraiment xaar buy nit ñi di xaar pour président Macky Sall si seen militant des na te c' est le moment ñu waxoo dañu waxoon dëgg ñu ñi xam ne ñoo nekk APR ànd ak Macky Sall vraiment président Macky Sall jàppalul militant yi lu nit ñi c' est le moment nag ñu génnee les pour démolir ces militants démolir les partis démolir la coalition parce que nous, leader leaders euh, dañuy daw militants dañuy on est là dans les communes de souffrir du kenn duñu Ben Ben leader ben recevoir kenn di daw nit c'est le moment la triste réalité la jeunesse les sénégalais dañoo tourner le dos au président Macky Sall lii du signal bu baax. gars yi dégg ngeen ko de audio daa bari nag mais bëgguma di teg quoi xam nga gars yi ñoom Thérèse Faye Diouf ak <laughs> yi léegi gars yi dañuy bind si kii ne bëgguma ko ma Californie gars yi léegi seen groupe WhatsApp bi loolu lañ ma loolu lañ tuddee gars yi quoi gars yi di ma jox audio yi nee nañ léegi gars yi dañuy bind texte <laughs> bëgguma ko ma Californie <laughs> léegi dama leen tere sax wax si seen groupe whatsapp bi parce que seen groupe whatsapp bi yëpp dama fa am ay nit dégg ngeen Moussa Sow bu ñàkk fayda bi kii bi audio la woon quoi maa ko def vidéo mooy ba muy naan gars yi il faut sortir le président va faire une déclaration ma ne ko yaa ñàkk jom billaay yaa ñàkk jom déglu ko amoo loo wax naan le président va faire bonjour maa ngi nuyu gars yëpp di leen sant bu Moussa Sow bravo bravo bravo à vous tous. léegi nag président de la république di suñu président suñu leader dafa Fawara, a askan wi euh, sur la télévision nationale la RTS euh, donc nous mobiliser wu nañu nous wu nay mel ne ngoon la ñuy doog a mobiliser heures nay mel mosuñoo mobilisez-vous. ñun ñëpp ñu taxaw dem taxaw bu baax défendre le président de la république occuper les réseaux sociaux que ça soit euh, sur euh, la RTS que qu'il s'agisse également sur euh, euh d'autres réseaux fii président virtuellement di waxee ñu dem commenter bu ñu kenn ëppale ay commentaires yu favorable s'il vous plaît s'il vous plaît merci beaucoup s'il vous plaît s'il vous plaît sama gars am na benn audio nag boo xam ne si sama mbokk Haalpulaar yi la jóge Fuuta ñoo ma ne Kaliphone yow àdduna moo lay seetaan te ñu bari dañuy ne waa Fuuta dañoo kontaan si Macky Sall dañ lay ne audio bi pour nga tas ko si àdduna xam ne Haalpulaar yi sax bàyyi nañu Macky Sall audio lañu ma ko yónnoon maa ko def vidéo mooy vidéo bi ngeen di gis ma publier ko sama bi def photo Ousmane Sonko bi mooy euh, video bi Euh, maa ko def vidéo audio lañ ma ko yónnee maa ko monté def ko vidéo sama frère euh, replay moo ma ko defaral donc euh, am na ñu bari ñu ne Kaliphone traduiral ñu kii lu muy wax xaar ma tegal leen ko si tukulóor ngeen déglu pour suñu mbokk tukulóor yi après yéen ñi olofi séeréer yi doon laaj traduction bi ma tegal leen ko déglu leen géwél yi nekk Fuuta. asalaamaaleykum Fandare Fuuta vraiment gën la allah juurno balɗe makke amin allah yettingel laamu amin el jooɗo e dow sege o lomto makki sal amin o yettinimin o yettinimin caɗele <laughs> o yettinimin maccu nga wonnongo e daaɗe amen hande sonko welma wettuma wonko sonko waɗatma wonko sonko liggare ma kon ɗum ɗo ceerno souleymane baalen ko ɗum ɗo woni kaɓirno ɗum ɗo woni koɓe gadduno aɗaɗi ceer souleymane baali joni ɓe safatɓe tampin yimɓeɓe kanko safatɓe gartan hocci wow o tocci hen wayli wayli wayli wayli nenne hannde sonko ittinimin maccu ngaw o ɓoori kala sere gale hannde o labbiniima mbele ɗa metteɗa wonko rokkuma hannde wonko addanma duuɓi jeenayi tan hay goto suusa foofta hay goto suusa haalde an tan an tan ko welma wadde fof gonɗo e maɗa fof kala ko wela wadde waɗa keddiɗo yo yo maayi seydi sonko am rokke eh, joɗade sese taw ko jooni jooni mhm. aɗani wone kasoji ko ɓuran woni kasojo ɓurat anani ɓaɗum ɗon kam on janngani suratu yusuf ha ah, mo tagi sibare nde wiya yusuf wona o soha ɗo tumawo affaire ndewago no wari holko wontimo wona ko laamu naɓa janje ah, seydo sonko gaay ñaaxare ndoo maa ngi ñëw si yow gaay yéen ñi dégg xalpulaar eh, waa ji nee na Sonko dafa génne nit ñi si buumu njaameel dafa yee askan wu bari tey nee na yàlla na Sonko remplacer Macky Sall ci pouvoir bi waaw suba suba nag moom waxul deux mille vingt quatre de nee na suba suba parce que nee na neuf ans d'injustice la ñuy dund nee na neuf ans d'injustice la ñuy dund Sénégal kenn sañul wax ku wax Macky te <laughs> mu ne ñoom dañoo sonn. <laughs> loolu la wax nee na dañoo sonn mu ne nii la ñoom kii Fuutiwu Taal defee woon moo tax Sonko tamit di xeex ak Macky Sall nii ñu ngi jaajëfal Sonko di ko sant di ko gërëm nee na ñu ngi jaajëfal Sonko di ko sant di ko gërëm euh, waaw kii nee na tigi pa xaara foog ma koy tegaat pour ma may dagg wax bi quoi parce que dafay am lu ma rëcc xam nga ñun suñu xaalpulaar yi tamit xaalpulaar ndakaaru njaay la quoi yéena ma gën a xam mais dinañ comprendre attends ana kii ba sax tey jii bu Haalpulaar yi demee bay wax lii Macky Sall te dafa kontaan dégg ngeen ko nu muy mooy maanaam di mel ni ku lay tàgg quoi waaw di la tàgg daf ko tàgg fii. asalaamaaleykum mhm. mooy xale. nee na ngeen doon cukaleel mooy maanaam bii xale. nee na waa Fouta maa ngi leen di nuyu. vraiment xale bi yàlla na yàlla guddal ay fanam maanaam Sonko la quoi mais xale bi mooy Odo Cukal daf koy ñaanal quoi ne xale bi yàlla yàlla guddal ay fanam moo tax faaw ngeen wax na mu toog si chaise bi yéen ngi dégg joodo joodo mooy toog chaise dégg ngeen chaise mu ne xale bi yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla taxaw mu ñëw ba si toog si chaise bi <laughs> mu mu remplacer nee na dindil nañu coono au itini min mooy dindil nañu kii di woo na ma may kii di woo numéro 34 bi may ma mu ne dindil nañu coono maanaam au itini min cadeele cadeele mooy coono au itini mooy dindil nañu o ittini min maccu e euh, mooy dindil nañu réer foog naa réer lu ñu réeroon dañoo réeroon daal maanaam Sonko xippi na bëtu nit ñi loolu la wax fii tamit quoi Sonko xippi na bëtu nit ñi. ande Sonko welma wettuma won ko Sonko waɗanma won ko Sonko li. mu ne tey Sonko mu neex la mu naqari la dafay am lu mu def ci yow boo xoolee Sonko kese Sonko neex la wala naqari la dafay am lu Sonko di def ci yow. kon ɗum ɗo Ceerno Souleymane Baalen ko ɗum ɗo woni ko kaɓirno ɗum ɗo woni ko ɓe ngadduno alhaji ceerno souleymane baal joni ɗe safal ɓe tampini yimɓe ɓe waaw loolu lay wax ni ñoom ceerno souleymane baal nii lañu meloon ba naari sonal la woon nit ñi nii la génne woon xeex ak ñoom maanaam comme sonko tey ni ko Macky Sall la sonale askan bi noonu la sonko tamit génn xeex quoi kanko safal ɓe gartano hocci wow o mhm. tocci heen mhm. woyli woyli woyli woyli minenne hannde sonko ittini min maccu ngaw o ɓoori kala sénégalais hannde o lappinima mbele ɗa metteɗa wonko rokkuma hakke mhm. wonko addanma duuɓi jeenayi tan mhm. hayko mooy duuɓi mooy at jeenayi mooy neuf mu ne pendant neuf ans nit ñi di dund rek comme jamonoy esclavage Macky di tëj rek di tëj <laughs> gor suusa kenn sañul nooy kenn sañul wax mune <laughs> haalde yow rek mu ne pendant neuf ans kenn sañul nooy kenn sañul wax moom rek lu ko neex rek mu wax lu ko neex mu def moom kese non nee na loolu dafay jeex. Mhm. mu ne ku nekk ak lu ko neex def mu def mais keneen ku def lu neexul Macky mu andi la problème mais Sonko moo ko moo ko poñi <laughs> Diomaye seydi Sonko seydi Sonko joɗade siège daf nee na yàlla na la yàlla may nga toog ci siège bi fekk léegi léegi lay doon moom neewul sax vingt 2024 quoi waaw nee na am na yoo xam ne ñu dugal la kaso daf koy jar waaw comme ni ñu teewoon Sonko noonu nee na daf koy jar am na kaso yoo xam ne boo kii foofu daf koy jar ko mhm. mu ne ngëneel la ko yenn yi ñu jël la tey dugal la kaso yi comme ni ñu ko dagalee gendarmerie loolu ngëneel la nee na ngëneel la quoi o janngaani suratu yusuf ah, yusuf yusuf wonaamo soka mm-hmm. ɗo tuumaawo affaire ndewaawo no wari holko wontinimo wonaa ko laamu nama janngee seydi sonko seydi sonko man da xaalis laay jaamu nag mooy sama saar nag xaalis mooy sama saar dëgg yàlla kii moom mooy mbaam bi xam nga tey suba bi may live nee naa leen ñaaxarañ loo mbaam la te newoon naa leen dina def vidéo jéggalu foog naa gis ngeen vidéo fu mu demandé pardon nee nañ ko pardon rejeté pardon rejeté parce que newoon naa leen ñaaxarañ loo foog ñu téegal ko te nee naa leen sama gars yi ñaaxarañ loo dina def vidéo jéggalu yaakaar naa ne gis ngeen vidéo muy jéggalu looy jéggalu ñaaxarañ loo dafa saaga sénégalais yépp déglu leen ko fii beneen audio bi publié wu ma ko xëy na am nañu ko jot am nañu ko jotul déglu leen ñaaxariñ loolu mu fi fii dafa saaga sénégalais première audio boobu dégg ngeen ko mais bii nii publié wu ma ko xëy na am nañu ko jot dégg nag parce que am nañu ma ko yónnee mais déglu leen. man da xaalis lay jaamu mooy sama saal nag xaalis ma. dégg nga nee na xaalis lay jaamu ñaaxariñ doo nee na moo ko ubbi mu ne xaalis lay jaamu moom déglu leen. sama saal dëgg yàlla tey nag mooy sama tarixa mhm. yooyu nag bu dee amoo yàlla na yàlla may xaalis man am naa woon dëgg yàlla maa ngi nee na sullam boobu mu génnee woon ba wan ko àdduna nee na sullam yooyu moo ko taal maanaam sexam yooyu mu wane woon ba àdduna yëpp gis ko foofu la jaar tàq parce que xam nga sénégalais tamit souvent médiocrité xam nga loolu yëpp tey tamit war na dañ suñu Sénégal quoi ñuy promouvoir médiocrité tey genre ñaaxarañ yi waruñu woon am buzz biir Sénégal am na ay étudiants yu nekk biir Sénégal mën na toog defar rëbo ñooñu ñoo mérité woon am buzz am na ay tailleur yoo xamante ni dañ day xool ñawal la ndoket bu baax ñooñu ñoo mérité buzz am na mécanicien yoo xam ne mën nañ la tasal moteur defaraatal la ko si une heure de temps ñooñu ñoo mérité buzz mais gis nga tey suñu télé yi suñu rajo yi suñu média yi ñii dañuy invité dégg ngeen ñii lañuy invité mooy ay Pawlish ak ay Ouzin xeexeexeek ay yu kenn xamut ñoo xam ne amaluñu société bi njëriñ loolu nag si combat bi ñu nekk nii faaw ñu commencé tamit di sensibiliser suñu bopp muy man muy yow mii di ma seetaan muy sa doom muy sa leneen ku bëgg reetaan dugal ci YouTube bi seetaan benn Golbert Diagne ku bëgg reetaan dugal ci YouTube bi seetaan benn Baye Eli dinga nga reetaan ba tëdd nelaw fekk dañ lay wax di la jàngalaale àdduna mais tey nga seetaan benn Ouzin Keita munoo jàng si moom dara nga seetaan benn Pawlish Mbaye munoo jàng si moom dara nga seetaan benn ñaaxarañ loo munoo jàng si moom dara moo tax man yàlla daf ma dimbali ñooñu ñëpp musuma abonné seeni page du Snap du YouTube du Instagram du Facebook parce que man bu may abone si page nit day fekk nit kooku di ma jëriñ dara mais aw ma jotu jënd sama connexion di xool benn Ouzin Keita aw ma jot bi jënd connexion di xool benn ñaaxariñ loo lan la ma lan la ma mën a apporter quoi xam na tamit Sénégal sama gars yi bu tardé souvent du Macky Sall souvent nag ni ñun ñoo bëgg a tardé ñun ñun ñoo bëgg a tardé. souvent Sénégal bu tardé du ngourdé de faaw ñun ñu xam lu ñu bëgg ba pare médiocrité waruñu promouvoir médiocrité lo xamanteni ni dalay tardel xamna naa bu ma ko peut-être suba mën na ma saga parce que mën nañ dàgg sama fii may waxee yóbbul ko ko mais man ragaluma ay saga moy boy bobu ñi wax xawma Adamo buy live ñaata personne ñoy nek ci ci ci kiwam bi plus de dix mille personnes ñaata nit ñooy commentaire foofu commentaire yi day taw tatatatatatatatatatat lan ngeen mën a jàng si aadamoo lu mu leen di lu mu nekkee bay boo nag mu saaga ma garaawul quoi amul lu may wàññi te du ma ko tontu it aw ma jot bi sénégalais di dem di seetaan aadamoo sénégalais bi di seetaan Pawlish mbay sénégalais bi di seetaan Ouzin kayta ñooñu lan lañ mën a jàngal lan lañ leen mën a yokkal si société bi xeex bi ñuy xeex nag bu ñu xeexee Macky Sall nag bu ñu xeexee mag Sall dañuy xeex ay Adamo dañuy xeex tamit ay Pawlish mbay parce que suñu société tamit suñu société ñooñu bu ñu naree defar suñu société te xeexuñu ñooñu suñu société dafay yàqu qu'on se dise la vérité de qu'on se vérité jeunesse su sénégalaise bi yéena moom seen connexion nag mais ñun bëgg nañ leen di leen yee bëgg nañ leen di leen yee de parce que tey Europe fii bu ñuy dugg si euh, Euh, si si compte Facebook nit wala Twitteru nit wala keneen pour di fa am xibaar yu am solo la di fa jàng dara mais foo xamante ni boo ubbee Adamo mu ngi jël jigéen di xaawi suturaam bés bu ne dégg naa ay dañ ma koy wax quoi di ma naan laajal si moom ma nekk aw ma jot bi parce que li mu am sénégalais yi ñoo ko ko may. parce que man benn yoon la wax ma seetaan wax dëgg fa yàlla te dafa am ku ma yónnee lien WhatsApp ma bés mu yóbbu ma direct moom ma toog di seetaan muy wax woo benn xale boo xam ne 17 ans la am naan ko sa far bi nekk fee sa kii ni di saaga lan la ñu mën a apporter fii ku yàlla xay woon sa sutura mooy loolu il faut nit ñi di désabonné wu si page ñooñu ngeen ñëw ñu concentré wu defar sunu Sénégal mën na nekk man na nek de man samay video yu bari dañ koy dag diko duggal tiktok dama koy gis peut-être lii may wax ni amna ñu ngi dag deux pas diko duggal tiktok terewuma ko kenn kérok sax ubbi tiktok wax deug fa yalla parce que musuma xamay tiktok yi mais néna len sama tiktok du dugg fofu pour ay fecc wala def ay bêtises mais tay Sénégal ñu bari da nga gis tiktok bi dañ ko def lo xamanteni luñu waron di jangal, du duñu yee mais dañ ko def lo xamanteni day gëna yak suñu société. dem leen ñi nga xam ne ay jigéen la ñu nekk si TikTok bi parce que vérifié naa fan yi fan yi la am TikTok bi maa ngi vérifié da gis jigéen bu def sax sili bu neen pour am ay m wala ak ay commentaire góor yi nekk foofu rek jaajëf jaajëf bu dul jeex apporté lu ñu dara gars di ko partage apporté lu ñu dara dara la ñu apporté nañu wax ak nit ñi lan moo mën a njëriñ suñu réew nan la nit mën a def ba bu dugalee benn carotte si suuf béy ko si benn une semaine carotte ba jur nan lañu ma def boo saxlee ñebe si un mois nga am nganti hectare toolu ñebe loolu moo am njëriñ tey Europe nganti ay terrain la ñu am mais dañ koy béy muy dugub muy gerte muy pataas muy loolu loolu daf ñuy amoon njëriñ réseaux sociaux yi mun nañ ko utiliser fekk du ñu faale état ñuy invité ay professeurs yoo xam ne seen wàll dem na ci mbéy mi ñuy invité ñooñu ñu lay mën a jàngal tey wala poulailler nooy defaree cuuj wala yow miy jënd ay tablettu nen boo baxalee nen yi noo si mën a amee bénéfice inci de suite loolu daf ñuy am njëriñal ko daf ñuy jural njëriñ mais futilité ñu bàyyi futilité yi futilité yi ñu bàyyi ko ñu bàyyi futilité yi parce que tey suñu génération ñun ñu bëri dañ tardé mais génération bi di ñëw waruñu leen sacrifier wallahi booy fii TikTok yi xam nga luñ ciy dugal bu police naree dóor benn nit ñu vidéo ko dugal ko ci TikTok gars yi partagé ko àdduna yëpp gis police boobu ñu convoqué ko police tey loolu mën na am bu ngeen taxawee buntu Pikine ci station bi police bi léegi bu arrêté car rapide du encaissé car rapide bi 1000 francs bi de dafa am benn booy coxeur xaw ma lan bu toog ci awet apprenti bi mooy yëkkati téeméer bi jox booy bi def nii police bi police bi kii da ngeen di dem ngeen filmer loolu ngeen vidéo ko ngeen dugal ko si TikTok mu wër àdduna ne corruption bu bees bi lii la ngeen dem croisement 22 ngeen pointé xool te seen téléphone def ko noonu léegi policiers yu bëri dañuy bàyyi corruption bi parce que policier bu njëkk dañuy arrêté benn car rapide nga gis car rapide bi dugal ko ni si permis bi mu rocci ñëpp ubbi seen bët di gis léegi système bu ñu def mooy dañu jël benn genre californe teg ko si wet bi noonu day sol t-shirtam bu police bi ne tërit car rapide bi droite apprenti bi day dem ci kalifan bi jox ko téeméer police bi xool kayit yëpp ñii nekk ci oto bi ñu ngi xool police bi de gis police bi joxaat def nii loxo yi di wane ne jotul dërëm fekk boobu booy apprenti bi jox na euh, beneen waa ji ne bu wàccee mu versé ko mu presque ay cinquante mille lay def ci poosam mu jox bu yambar bi benn cinq mille yooyu bu ngeen ko doon wane muy def tour Afrique police yi teg seen bët dafay baax xool lu ñuy yee.

Ousmane Sonko bii ngeen yaakaar Sénégal yi bëri yaakaar ko yéen a ko mën a dimbali deux mille vingt quatre ak wala avant deux mille vingt quatre bu ko yàlla tegee ci nguur bi te changé wuñu d'abord mentalité sénégalais yi wallahi di ngeen rëccu lu ngeen falee Ousmane Sonko dingeen ngeen ne ñu xamoon ñu bàyyi fi Macky Sall xam nga lu tax parce que nit ñi ñoo neexut a tey defaral dara. foog ñu arrêté naan mbedd bi mbedd buur la foo romb saw foo romb sànni xottu gerte dugg si car rapide di yëy kii wala di socc waaye fepin pes di taf ci biir oto bi yooyu yëpp foog ñu koy dindi bu ko defee sonko bu faloo day fekk tappi bi liis liggéey rek la fiy def conscience yi ñu changé ko conscience yi ñu changé ko ñu bàyyi tey comme Farouz fu mu war a nekk ñu ñëw jël affiche ay kii ne Ngaaka Blindé tey day concert ñu jël affiche këru jàmbur nit jënd ay karoom conteneeru karo tabax état yeewu ñoo gis ñu bind si peinture ne Dip Doundou gis clip bu bees fii ñu def ko foofu ngan di kii ay peinture wala ay affiche yàq miiru jàmbur loolu yëpp du yoon faw ñu gét loolu doo ko gis Europe place affichage dafa am place affichage dafa am ngeen dem ci place affichage ngeen affiché ngeen fay mairie wala ñii di def seen i publication mais munoo ñëw nit gis ki nit jënd immeuble am jënd kër bu mu rafet nelaw guddi ngeen ñëw quatre heures du matin jël seen bonbon yooyu bind penenenen mooy pompe yi nga xam ne boo si doon def acide sax du dootul deñ loolu tamit du dëkk du yoon waaw lu ñu mën a def depuis léegi combat bi faaw ñu koy xeex genre ñaaxarañ loo bii no Sénégalais bëgg Sénégal yépp désabonné wu si compte Facebook am ak Snapchat am ak Instagram am parce que dégg ngeen lu mu leen wax dégg ngeen de saaga na leen déglu leen ko ah yéen ñoo am seen connexion nag déglu leen ko. man de xaalis laay jaamu nag mooy sama saal nag xaalis mooy sama saal dëgg yàlla tey nag mooy sama tarixa yooyu nag bu dee amoo xaalis nag yàlla na yàlla may xaalis man am naa woon dëgg yàlla may sant man kooy yooyu moom ma taal ci laa tàkkee rek maa maa gën samay kooy kenn xamu moon ba ma gën samay kooy ci lañ ma xam saraxu awra day caaxaan laajal mbaaco kat sa lëfal ndey heure boo yeewoo dégg nga ko de ñoom yaakaar jox leen Dakar ak li ko wër dégg ngeen lu mu wax de nee na awra bee ko may succès bi moom ku weddi laajal mbaaco loolu c'est grave c'est grave xam nga ñii amuñu lu ñu mën a apporter société bi quoi moo tax waa ji dégg ngeen waa ji lu mu ko wax ji déglu leen lu wax ñaa xarañ moo tax gars waaw daa am may woo kii di ma woo may ma moo loo Sénégalais wuye ma ñaaxaañ loo juróomu iPhone la juróomu iPhone iPhone mu ne un million cinq cent mu teg ko si ndigam jënd ko liggéeyu ko li ay ministre ay député kon dem jox ko ñaaxaar ak mu jël ay iPhone di ngeen takk ndee si loo na iPhone yi ñu doog a ndee si Thiès hôpital yi di faj ndey néew doole yi wala ñu katt ndeyam taal ndey gërëm wala ñu kattaale ndeyam góor jigéen la doom Macky Sall xam nga mujjee simple dinañ katt sa ndey ba nga simple juróom iPhone la ñaaxaar ak loo juróom ndey iPhone iPhone mu ne un million cinq cent ah ban réew lañ nekk nekk waaw dégg ngeen ko mu ngi noonu yaakaar naa ni dégg lu sénégalais wax si Niakhar Ndiob ay juróomi iPhone 12 Pro Max lay doxantoo di wane dafa am alal te ñuy yor alal ay milliar Niakhar yoroo dara ay iPhone 12 Pro loolu du dara ndeysaan tabaxoo étage tabaxoo immeuble ku yor day yore immeuble immeuble war ma jël kii xëy na daa am lu mu bëgg wax parce que ubbiwuma ligne bi sax mais ñu may ko rek bisimilah. allo. allo salaamaaleykum. Kady bisimilah ñu ngi lay déglu. Mhm. waaw maa ngi lay bëggee gaynde di la bu baax. daal di ziar fay wootee. waaye di wax félicitation quoi yow yal na la yàlla defal jàmm gaynde. amiin jërëjëf amiin. et fi nga ko teg nii Kady fi nga ko teg ni mhm. fii kese la. Mhm. yaa ngi conscientiser sénégalais yi. et puis idée bi nga jël chemin bi nga jël nii. rafet na yal na la yàlla jàppale yal la yàlla taxaw amiin li nga xam te bëgg ko si biir xol yaa ko xam yal na la ko yàlla defal musal la seytaane may lu gudd fan ak wér ñi lay dégloog ñëpp ak ñi lay suivre amiin waaw mbiru ñaaxarañ lool ak man sànq def naa benn vidéo bu ndaw si moom fii si Canada mm-hmm. waaw kooku xaw ma jot nga si wala jotoo si mais pareegu ma si moom ndax naa def live uniquement pour moom ndax c' était la première fois sax ma saaga te li tax ma def ko man dama tontul sénégalais yi te li ma ko wax dégg na ko gars yi partagé nañ ko doomaraam la nga baal ma nag non grawul sax wax di saaga mais xëy na ni mu demee la quoi sama xolo sob situation oblige waaw donc xëy na cas boobu naa ko jàll sax dugg si débat bi. parce que mm. amul solo. parce que mm. am na gars yu commentaire naan di wax su ñooñ sax xam nga yokk leen buzz la quoi kon mm. jaru ko. mais daal yow fi nga ko teg nii gaynde jàng ko teg fu baax yal na la yàlla jàppale. amiin loola lay ñaanal waaw amiin ndeysaan yow yaa ngi Canada daa <laughs> li ngay gis Canada si dund bu neex rek la ñu yéene réew ma de. dana yàlla yàlla na yàlla na yàlla mottali lépp ba gars lu lu bëgg rek yàlla ñoo xam seen biir xool yàlla na ko yàlla kii quoi def amiin amiin waaw c'est ça ndeysaan jaajëf c'est ça quoi jaajëf rek ndam kontaan nañu si jàmm kontaan nañu jaajëf merci jaajëf jaajëf jaajëf merci euh, maman Nathalie Fernandez maa ngi lay nuyu les lay bax gaay ñu may yenn numéro bi 77 121 30 24 yu bëgg ñu may ñu même cinq personnes ñu wax si sunu Sénégal wax si nu ngeen affaire bi muy rek dafa xaw il est douze guddigul bu mais bon muy loolu maam xari la ndeysaan maam xari merci sister maam xari coréen sama numéro whatsapp yaakaar naa ni mooy loolu 77 121 30 24 waaw dañu jël kii allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. kilifa gi ñu ngi ziar frère naka mu. grand ñu ngi ziar. dolli ziar bu wér naka yi tey. bu baax a baax. jaajëf jaajëf. journée ñu ngi nii rek rek. fii la ëppee frère. di bëgg yow. fii la ëppee. di ñaan xam nga waaw ñun xam nañ la ko ndeysaan. wala il faut ñu dugg sax direct n'est-ce pas maa ngi ah. yaa ngi ñëpp a lay déglu yow moom daa mel ni ñoo bokk ndawoon Patte d'Oie fu ñu doon dóore waar. parce <laughs> que ñun dañ laa xam quoi bien avant. la première fois nit di def ay genre yi sax ma dugg ci. ndeysaan. barke alxuraanu karim rawal te Dakar gëm naa ni ku xamul tamit xamee woo man mhm. ndeysaan mais nag xam nit ñi dañu sonn quoi dañu maar grand mhm. te daaw ñu gis fu ñu ko jooyee foo xam ne mhm. wax lu nga gis ku lay kaasal yomb na mais gis ku lay kaasal te lim lay kaasal poosam tax moo yomb ci dëkk bi bëri na si de mais nag dafa jafe ngay gis koo xam day day jooyal askan wi te koy jooyal te yàlla rek tax. ndeysaan. waaw dama la xam bi ngeen defar. ndeysaan ak yow. on est ensemble lekk naa sa xaalis ba taay dëgg yàlla. ndeysaan. te eh, xam ne li ma laaj mi ngi sama poche mais da koy yëkkati jox ma. dëgg la ndeysaan on est xam nga. Mhm. ne li yaa ngi lekk yaa ngi naan. Mhm. la neexoon def comme ñeneen ñi liggéey sa liggéey wàcc dugg sa li ngay def nii encaissé woo ci un franc jariñu la un franc lu dul lu jot mos jot ay saaga. waaw doo ci jot dul ay saaga. wallaay. xam nga xam sa jikko xam ki nga doon moo tax ma am fidu. Mhm. waaw di déggante ak yow. parce que mhm. lii boolewuñu man ak yow. depuis Padois la wax nga dëgg. voilà parce que xam nit ki xam jikko moo ko gën. Mhm, ndeysaan. xam nga. dañ lay ñaanal daal ndeysaan yàlla ya, baax na bëgg naa la amal amal jàmm amal jàmm waaw amal jàmm jaajëf kontaan na jaajëf jaajëf merci kii sunu benn frère la mu ngi depuis Patte Dakar bi may nekk Dakar ñoo nekk ndawoon foofu ci yëngu-yëngu mbirub téléphone yeeg ya, yooyu donc numéro bi mooy bi ma affiché 77 121 30 24 am na ñu doon woote dañuy xaar ñu jéem a jëlaat même bu dee ñaari ñetti nit Khady mbay nuy naa la Khady Mbaye nee na la paix hello la paix Awa Thiam naa la Souley Laye Sow nee na on t'aime Kali moi aussi je vous aime je vous aime tous Mina Ndiaye naa leen yéen yi di ma woo yëpp Momo Diallo euh, nee na grand yokkal son bi tuuti dafa xaw guddi nag <laughs> heure bi xam nga rek xaw guddi bëgguma déranger xam nga fii moom yam gën xam xaaral ñu jël numéro bi déglu ko Assalamualaikum. Waalaikumsalam salaam Kady. waaw ñu ngi ziar. waaw Baye lay ziar lay bu Europe. Ya? Ya, ah iya, yaa Grande Bretagne bisimilah naka mu. Eh, yàlla ya xam naka laa lay wax nii. Ousmane norvez nuy naa la Ousmane norvez frère nuy naa la. Uh-huh, bisimilah frère maa ngi jégalu. Mhm. saa su ne saa su live du yokkal yokkal voix bi tuuti rek.

ndeysaan wallaay wallaay mais nag ñu bokk lépp ñu bokk lépp ñu bokk lépp ñu bokk lépp yàlla baax na ndeysaan amiin yaa rabbal alamin jaajëf kontaan naa jaajëf jaajëf jaajëf nuyul ma foofu jaajëf merci ñu jël keneen jaajëf mi yàlla maa ngi lay nuyu allo salaamaaleykum waaw bisimilah baat bi bu mënee jóg ci kaw ñu dolli ziar sant sunu borom yaa ngi Sénégal daa mel ni. bisimilah daam loo bëggoon dolli. ndeysaan moomoo Mario nuyu naa la moomoo Mario nee Kali marché Grand F ndeysaan. xam moo ma man tout le temps bu ma seetaanee seen discours daal man ay affaire création la ñuy wax créer employé créer employé. Mm-hmm. ñoom loolu xaw ma dañu koy naxee xaw ma ñoom daal saabu ay situation amee daal ñoom bu ñu taxawee di def seen discours dañuy mel ni nax daal naan ay créer ay créer ñun waratuñoo toll ci ay affaire de création. mais tene daal. ñun dañoo war a mënal suñu bopp di demal suñu bopp. te loolu pour ñu am ko. il faut ñu génn fi ñoo xam ne nii xoolal dañ ñuy dundee dundaluñ ñu quoi. day eh, na waar. parce que faaw ñu liggéey. Mm-hmm. parce que jamono ji jamono ji il faut xoolal ñu liggéey. Mm-hmm. liggéey bi mooy état bi. Mm-hmm. mooy jël ñëpp mu yemale leen. mais kii di fayee ko trois millions kii mënta am cent mille francs. wala kii mënta am vingt mille francs. wallaay dafa ñaaw. trop. il faut xoolal ñu yemale ñëpp ministre bu nga xam ne tey day jënd oto cent millions cent oto benn oto cent millions nga dem ci bale bi nga gis ñoo xam ne ni tey jii nii ah, ci néegu sàkket lañ dëkk. walla amuñu ndox. ah. su dëgg ñu def seen ndox sax fi def seen ndox di ko naan sax yow soo fa demoon tey buñ la ci joxee ndox buñ la ci yóbbu leen ndox ne la kaay sa boo ko yow da ah. yooyu noonu pour Sénégal avancé faaw ñu jéem a dimbali ñooñu parce que gis nga ñun ak ñooñu moo ñu dal ba suñ réew mi mën ta dem chaque jour ñuy dëkk ci xeex ak xuloo hmm. il faut ñu gestu ñëw gi doole yi hmm. pour ñu développé hmm. faaw ñu dimbali néew bi doole yi mais wax dëgg yàlla man li ma gis suñ réew mi ñi am doole dañuy continuer di am doole mais ñi ñàkk doole duñ mos a am doole man rafetlu man rafetlu ma ci dara dara dara dara. métti mm, na de métti na saf na saf. waaw ndeysaan. te man moom wax dëgg yàlla amul benn live booy def lu mu ko seetaan. damay seetaan sa live sa suur. kontaan naa jaajëf. waaw. leneen yaa ngi liggéey yaa ngi liggéey lu am solo. jaajëf ñoo ko bokk. yal na yal na la yàlla làq fa yàlla yëngul. amiin ñu bokk la incha allah. parce que kali li ngay wax billaahi walaay talaay man sama xol bi lay dugg. xëy na nag mais am na vocal bu hmm. hmm. kontaan naa jaajëf. jaajëf ndeysaan maa ngi gis benn waay def ma woo whatsapp mais sama photo la jël def ko profil. ndeysaan mu ne Kali dama la bëgg rek sa photo sax laa def sama profil whatsapp ma ne ko yàlla baax na yàlla na la yàlla bëgg maa ngi koy nuyu xam naa ne moom mooy seetaan yaay faa yaay faal borom Suisse. borom live yi neex yi maa ngi lay nuyu yow yow xam nga yow <laughs> waaw dañu jël kii 39 la daa mel ni la. salaamaaleykum salaam. waaw mais ngi lay ziar. bu wér a wér. ñun kontaan nañ si yow bu baax a baax. ñu ngi doon ziar pour di la a baax. jërëjëf on est ensemble Axat Fall nuyu ñun ñun waa Thiès lañ waaye ñun kontaan nañ ci yow. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla kontaan. di am di am benn message bu mu bëgg bu mu rek. Mm-hmm. pour ñenn ñi wax des fois nit nit wax sax ñu ngi la yow nitu Thiès nga nangam sangam. Mm-hmm. mais tey tey ñu bëgg leen a xamal ni. Thiès ku ko yeb tey nga ko yeb. Mm-hmm. ndax ku laaj Abdou juuf xam ni Thiès ay vrai patriote ñoo fa nekk. ndeysaan dëgg la. Abdou Diouf xam na ñun ñooy waa Thiès. waaw kontaan gis naa benn message bu baax boo boo lancé ci affaire gars yi nga xam ne ñàkk fayda yooyu ci hmm. Sénégal di top ay aadama ñooñu amuñu njariñ ndeysaan te yeneen bi dafa doon wax ni nit ki moom hmm. saa bu xëyee amul dara lu lu mu yokk lu mu yokk rek xamal ni journée boobu da ko perte wallaay kon nañu gën a góorgóorlu ndeysaan te xam ne c'est Afrique ñu ñoo ko mën a développé wallaay wallaay surtout jeunesse bi ndeysaan te ku te ku dem déglu président Guinée bi lu mu waxoon hmm. président Ghana bi lu mu waxoon Macron di nga xam ne Afrique ñun ñoo ko mën a développé. wallaahi ndeysaan. parce que ñun suñu ak ñoom ñoom ñoom rek ñoo ci bénéficié mais pas ñun. Hmm. kon nag xam naa am na gars yeneen ñu bëri bëgg a dugg. mais maa ngi cher ñëpp si leen bi kontaan nañu jaajëf. donc ñu jël keneen kooku ñu ngi koy jaajëfal ñu jël kii tamit xool. salaamaaleykum salaam kilifa gi ñu ngi nuyoo. maa ngi lay dellu sant sunu borom bu baax a baax alhamdulilah rabil alamin. yal nañu yàlla yokk xewal. ak gudd ñu bokk lépp incha allah Penda Camara nuyu naa la nuyu waa Amérique yëpp. Mhm. borom or la a ablaye si waaw ñu ngi sant sunu borom baax a baax mbaa yéen it yéen a ngi am jàmm. ñi nga am jàmm alhamdulilah di sant yàlla bu baax a baax. yàlla defaral jàmm yëpp yàlla defal nañ ko sonko bu fanaanee si kaso ñun tamit dañuy fanaan duñu nelaw ndax hmm. dañu am gis koo xamante ne hmm. yàlla mun na tax suñu wërsëg si mu la nekk xale bu ndaw la réew mi changé mun na complètement ndeysaan mon sa munaas jéeme gisoo ko sa numéro xale bi ne na diree nit yi doomu aadama munu ko dañu hmm. waxante dëggante vraiment ñu ngi leen remercier yéen tamit si liggéey bi nga nekk ñun yàlla daf ñu waroon jox loo xamante ne chaque jour ñu leen di jox dara. te yàlla. ndeysaan yàlla yàlla baax na eh? yàlla baax na. suñu yéene mi ngi doon topp si suñu yéene bu baax. mi ngi doon topp man salaahu alayhi mun naa am sama wolof yi sax setul noonu. jërëjëf kontaan nañu ñaani ñaani lañ soxla rek na ñaani ñëw rek. Ah, jërëjëf jërëjëf jaajëf amiin yaa rabbal alamin amiin amiin Amin, Amin, jërëjëf ñu jël kan waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf donc kooku di sunu benn mbokk bu doon woote tamit depuis Sénégal donc ñu jël keneen asalaamaaleykum allo Khalifa naam ñu ngi dolli ziar bu wér er. mbaa yéen am jàmm fay wootee Touba daru salam baye ni nga am jam rek. ni nga am jàmm baax a nak wa ñu ngi leen di rëbëgee. wa di waxaat ci li nga don wax léegi ci xalé yi Sénégal sonn nañ kali. torop sax. sen yo xamanteni ni ans vingt ans amuñu liggéey bo xamanteni man nañ ci jàpp liggéey bo xamanteni ni dinañ mën a wàcc am lu ñu yóbbu seen kër. ndeysaan. da nga ci gis ay borom kër yoo xamante ni dix neuf heures la ñuy mais dañuy muccu vingt deux heures moom la ñu mën a àgg seen ndax parce que amul lu ñu yóbbu kër ga. c'est ça. ñun gone yi la la am nañ am am nañu dul am am nañu dul am sax trois cent bi xam naa si dara banlieue laa dëkk. waaw da xol xool waaw mais da toll yow Kaly. Hmm. ba pare ñi am di di am toujours ñi ñu gën a noot. xeex bi nag waruñoo teg suñu tànk. déedéet dañ ko war a mhm. suñu. liberté wallaay wallaay ñu xam ñoo yem. moo tax président nee na leen couvre-feu bi couvre-feu bi léegi la. <laughs> mu ngi mu ngi rasu de. fond bi ay ñoom ñoom gone yi ñoo ko war a ah. mm-hmm. kenn ko li mu nekk na am jàmm fi mu nekk. Ah, mais nag bu na mm-hmm. bañu ko ci réew mi. ndeysaan am na solo. kenn bañu ko ñun ñii wax na ko de sunu moromu nit la de kenn bañu ko wallaay. système am lañu bañ rek. ndeysaan wallaay ko bañ. wallaay kenn du ko bañ mais na xoolaat en trois sam tam a yi. Léna Thiam nuyu naa la. Mm-hmm. nguur suñu borom moo koy joxe saa yu ko waree jeexal la mhm. moom loolu la war def ci boppam nga xam yàlla moo koy joxe saa yu waree jeex day jeex mais na liggéey mhm. en tout cas nag comme li ko doon waxaat léegi ñu ngi ciy gën a wax comme suñu ay TFM yi teg ay Pawlish mbay di leen invité ci ay yoo xamante ne amul benn njëriñ ñoom ñoo gën a comme rey suñu xale yi jeunesse bi rek mais xale boo yàlla baax na. ok Kale jaajëf jaajëf kontaan naa kontaan naa jaajëf nagas jom nuyu naa la yéen ñi nekk États-Unis di ma seetaan yéen ñi nekk Sweden mm-hmm. yéen ñi nekk Italie gars yi fépp fu ngeen man mënti nekk xaari ñu jël sunu beneen frère moom daa mel ni mu ngi Norvège moom sunu frère la ñoo bokk benn koñ Ousmane Norvège da nga am problème connexion maa ngi lay jël mais demul. Euh, kii mooy jël nii dafa am problème connexion muy Ousmane Norvège di suñu frère ñu bokk Dalifort mais yàlla dogal na ni moom day def sax ay live mais Ousmane Norvège euh, da un am problème connexion Ousmane Norvège da nga am problème connexion maa lay décroché mais ça passe pas xaar ma jëm la rappeler xool euh, ah xaar ñu jël keneen. salaamaaleykum waaleykum salaam. ñu ngi dolli ziar bu wér soxna si. waa di rafetlu rek euh, sa taxawaay. Mm, jërëjëf ñoo ko bokk. à chaque fois ñu ngi lay suivre waaye tey moom euh, tey da nga dugg fu am solo. ndeysaan. Euh, da nga wax loo xamante ne dafa am solo lu ñuy xeex xeex xeex te ñun suñu jukko rek. zéro comme waaw d' abord ñun nañu jéem a xoolaat suñu jukko yi jéem a defaruwaat d' abord. Mm-hmm. suñu bëggee changer suñu société. Mm-hmm. waaw naa leen génération bu nekk bu ñëwee. Mm-hmm. day am lu muy ëndaale. ñun nag euh, ñu ngi bëgg am sens bu ñu góorgóorlu. ndeysaan wallaay yàlla taxawuñu. mooy wane ngor. ak jom. ak fulla ak fulla ak fayda ak fayda wallaay suñu bopp. doylu bu ñu alal këf bu ñu dara këf mm, loolu surtout loolu bu ko mm. amee rek mm. yaakaar naa ne ñu dinañ mën a avancé mën a avancer wallaay il faut ñu xam ne nag wërsëg yamul mm-hmm. Mm-hmm. waaye nag li ñuy liggéey na la sëkk mm-hmm. soo ko defee rek doo sonn te di nga mën a nekk ci société bi sans problème te kenn du la ger waaw loolu daal ndaw ñëpp noonu nañu xool ci loolu am solo xoolee ci ne dañu war a liggéey lii seen wërsëg yàlla dina leen ko jox avant ñuy génn a hmm. yàlla moo koy joxe du koy jox nit de xëy na nga koy jaale nit waaye sa wërsëg yàlla moo la koy jox kon ñun ci foofu lañu war a góorgóorlu ñu liggéey ndax liggéey mooy may hmm. ku yaakaar ne leneen mooy maye nax nga sa bopp liggéey moo lay may li lay suur lay tubaab tubaab wax na ko seul le travail paye waaw ki fay paye hmm. kon c'est ça il faut ñu liggéey li ngay liggéey nag boo ko dee da lay suur boo ko lekkee da lay doy sëkk mhm. ndax day nekk lu leew loo xam ne yow yaa liggéey liggéeyal sa bopp wallaay wallaay c'est très important jeunesse bi ba dëgg yaare man dama leen di félicité ndax man mhm. benn affaire rek moom laa ci waxaat ko ci nañu fulla de dama doon dama doon sànni ah ma ne wane nañu fulla de <laughs> waaw dama doon dama leen doon tooñ à chaque fois di leen tooñ comme man jaaruma université. Mhm. su ma jigéen di leen xas mais seen ñoo ko jaar waaye benn moment ma dem fa toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xale yi li nekk seen xel. macha allah ñuy dox ci mbedd mi nii sax xamuñu ko wallaahi. xale yu déterminé lañ. gis nga étudiants yooyu tey ñu mhm. génne ay ngànnaay lu ma gën a métti sama àdduna kali. Mhm. loolu ci la bokk. jeunesse boo xamante ni bëgg seen réew. di jàng toll ci wut nga yàq. dërëm yëpp ci àdduna wërgal këpp dafa ñaaw. day na war nañu defaraat jukko waaye nañu rafetalaat. am na solo ñu ngi lay jaajëfal politique jarul yenn yi. jërëjëf ñun ñoo Sénégal. la jaajëfal baax a baax jaajëf merci beaucoup merci merci. bi daa xaw a saturé ku dugg rek xaw a gàttal ñu jël keneen ñu ñëw allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sant sunu borom baax a baax. lay jaajëfal baax a baax a baax si liggéey bi nga def. Mm-hmm. ñoo ko bokk. Euh, c'est la première fois may dugg si live yi. Mm-hmm. waaw ma doon euh, ndaw bi nga xamante ne ni def université huit ans. ndeysaan. Mm-hmm. ma jàng ba am sama lijaas. et je je peux même prouver. gouvernement bi bu ñuy jàkkaarloo.

Mhm. dans l'esprit de développement personnel, et embrasser, ni taxaler ak seen moyens de bord. Mhm. Le Sénégal a des unis. le Sénégal a des élites euh, intellectuels yi nga xamante ne tey qui, nañu avec ses propres moyens, propre moyen. et arrivé ñu le sauver le Sénégal mais liñ wax dëgg yàlla dalul xel. wallaay. waaw donc na patriote yi ak patriote yi aussi nañuy jigéen yi ak góor yi nañuy jëngu ñu xam ne ni fii jeunesse bi moo mun a changé et kontaan trop si li nga nekk di xelal gars yi. jërëjëf dañu di suivre li nga xamante duñ leen apporté. amul njëriñ saaka ak non. waaw dañuy góorgóorlu. ñu xam ne yàlla du tëj buntu. tëj palanteer mënul nekk nekk <laughs> jaajëf mhm. merci frère merci jaajëf kontaan nañu merci on a mhm. à l'université mhm. dañu doon nax dafa mel ni doon lëree di jàng ay civilisation yu kenn xamul ah te tey adduna bi dafa changé wallaay yi ñu jàngee fàtte nañ ko Jadi, waaw lu ñu jàng ñun dañ doon jàng pour passé ñun dañ doon jàng pour am liggéey poste mm-hmm, mm-hmm. mais lu ñu jàngoon yëpp fàtte nañ ko parce que lu ñu jàng daf ñu tuuree dañuy déplacé wu mm-hmm. xamatuñu lu ñu jàng am na solo ñu ngi lay ñu ngi lay sista sista sahur sa tur bi dafa ñàng sama grand bi depuis padua maa lay nuyu la jaajëfal Ousmane Norvège sax dama jéem la woo parce que sa réseau bi sànq baaxul ah maa lay jéem a rappelé euh, sa réseau bi baaxuloon woon sànq je ne sais pas bu dee bi yoon dina baax waaw bisimilah. salaam frère maa lay ziar. góor mhm. rek moo koy def donc man su ma rak nga aw ma lu ma lay conseil mhm. ma lay encouragé ku baax nga dina metti mhm. dinañ la saaga ndey dinañ la jëppi mais àndal ak yàlla dëgg la yàlla dina ànd ak yow ndeysaan donc aussi ñuy woote dañu gàttal live kat yi aussi bu ñu invité nit dañu bàyyi ñi kii woote mu wax li mu bëgg wax bu doon invité nit nangu mu dugg ba pare yow buy wax nga tagg ko góor a wax tey na waar <laughs> <laughs> am na solo on est ensemble jaajëf <laughs> merci frère kooku doomu ndeyu Assane Diouf la di Ousmane Norvège donc ñu jël Abdourahmane Fall depuis Pikine moom it sunu frère la moom it mu ngi dund galère Pikine moo ngi dund coono parce que mu ngi doon liggéey mais si nguur Macky Sall la perte liggéeyam xam naa ni mooy loolu Ababacar daani nuyu naa la alors bi bisimilah. Eh, ah. <laughs> ci doon xalam léegi li mu doon xalam macha allah. Mhm. sunu mbokk alpulaar bi dañ lay ne masa coono war nga nelaw nag. war nga nelaw sonn nga. ngay waxee ni sax day wane ne sonn nga. Mhm. mais loolu yëpp sa engagement ak sa gëm-gëm moo tax. Mhm. mais beneen bi ma ciy rek ci sama gis-gis mooy kali man sànq na ma toog di seetaan tele bi ñu wane président muy wax damaa jooy. ndeysaan yaram nañ ko ñun ñëpp ndeysaan jaaxle na. lu ma jooy. parce que dafa ma fàttali démb bi muy soxla ñi jógoon def engagement ak yooyu ñëpp sonnoon ci sénégalais yi ci sonnoon ak ñeneen ak ñeneen tey lu tax ma yërëmaat ko beneen mooy ñi nga xam ne tey ñoo ko jege ñu nekk ci nguur gi dëgg dëgg dëgg bu dee rek yàlla tax dimbaliwul président Macky Sall hmm, lor lor lor nañ ko de dimbaliwuñu jeunesse bi taxawuñu jeunesse bi ba ñëpp fépp si ni tamit la de. mais taxawuñu jeunesse bi. Mhm. tey am na ñoo xam ne tey billaahi wallaahi tallaahi ñu jàppoon président Macky Sall démb di ko xeexal. Hmm. di jaay seen bakkan. Hmm. tey ñooñu ñëpp ci bëri dañu regretté. wallaay. dañu <laughs> ji am na ñoo xam ne sax amul lan la du seetaan kali. du ma seetaan kali pour lan parce kali si ñun la bokkoon démb. Mhm. kali lu tax muy def li muy def gis na réew mi nu muy doxee Abdourahmane lu tax muy nu muy def parce que gis na réew mi nu muy doxee. président Macky Sall bi mu jógee démb kan daf ci jàpp keneen abdourahman jàpp ci keneen ak keneen seen alal seen lépp lañ ci def. wallaay ndeysaan. yaakaar na dina baax. Hmm. yaakaar président bi ñëwee ñun dinañ kontaan. Sénégalais yi dinañ kontaan. Hmm. ku nekk di nga gis sa bopp. mais tey loolu amul. ñëpp jom xam nga loolu amul moo tax moo moo moo tax. décep déception totale tey wóor na yàlla yeneen yàlla mi ma. tiim non c' est vrai ah dañoo ruus ñëpp ruus parce que may lu tax may jooy dama fàttali ku démb. lu tax may jooy parce que tey ji am na ki nga xam ne ñoo ko doon jàppale kali 23 juin. wér na kër Macky Sall la kër 23 juin Kër Macky Sall laa ndekkee laaf. kali dama daan dawal sama moto ñëw fekk leen maroon di foofu foofu ma dem jëndal leen jëndal leen ay sandwich. wala mhm. may leen ay ndox. te si nguur am nga perte sa liggéey. waaw mais tey jii maa ngi nii waaw mais mais tey ah, jii dama lu tax ma jooy loolu moo ma jooyloo moo ma jooyloo ah, parce que nit tamit même boo nekk ak moom xam nga wala nga kii nga gis tey ñu koy tooxawal nga gis tey jii am na ay nit ñu ko jege dañ ko wax dëgg mhm. da leen metti da leen mhm. nga la vraiment yow moom ñu ngi lay jaajëfee. jaajëf jaajëf li da ngay yeete Sénégal yi da ngay wax li nga xam ne moo sa biir xol. da ngay wax li nga xam ne moom mooy da ngay wax loo xam ne mooy Sénégal. jaajëf merci ñu jël keneen mais tey ji nit ñoo ko jege jege wala ko bu rek waxal la merci frère ma jël donc xaw ñu jël euh, la numéro 06 20 yaa ngi ci biir mais sa connexion daw na numéro 06 20 21 yaa ngi ci biir Europe nga nekk macha allah photo bu yaa ngi nekk ci biir mais daa mel ni connexion baaxul souvent connexion yi mooy loolu ñu jéem a xooliwaat keneen kii tamit 07 la daa mel ni moom it Europe la nekk ñu jël ko salaamaaleykum.

que suñuy réew mi kàddu yi leerul bu baax de xaw ma écouteur nga def wala day def écho. waaw bu écouteur da nga koy dindi s'il vous plaît. waaw ñu lay dégg. Uh-huh. waaw kay parce que dañuy gàttal euh, gàttal affaire bi rek. parce mhm. six ans lu bëri weesu parce que Sénégal li fi nekk kenn mënu koo wax parce que du ma ne Macky Sall rek mais Macky Sall ak homme de tenue yëpp yu bari bàyyi nañ seen i liggéey daw dem Europe. te loolu moo ko waral i lu dul dëgg du yoon. parce que c'est la première fois ma def intervention si côté boobu. Mhm. te am na boo xam ne tam aussi kaawu Cheikh Ndiaye bi aussi maa ngi doon déglu si kii boobu aussi yëpp xam nga kon lu ñu war a wax dafa bëri trop. tëgg moom njëkk te mooy mujj. Mhm. looloo tax dañ ciy war suñu àq rek war na chaque jour nit ñi ñu lay seetaan ku woo ak ku la mhm. parce que ñëpp ñu ngi lay dëgg la ndeysaan. ay doomu ay doomu colonel lañu ay doomu mhm. capitaine lañu mais. nit boo juddoo ba màgg ba majeur. bu nekk da am sa chemin boobu. da sa liberté dëgg la ndeysaan. moo tax lu bëri mu ñu bëri ay sergent chef ay adjudant yoo xam ne dañuy résider dans l'armée. dem ñenn ñi bind ñu sax demande dañoo jig saa demal seen bopp te kenn du wax nañ ma ñu bëri ñu bëri ñu ngi ci fii Europe ba ay gendarme la ñoo nag kay démissionné daaw ñëw fii man kay ñu bëri woo nañ ma kay fekk du tey sax yàlla xam na mm-hmm, mm-hmm. merci man dama lay suivre dép bëgg a def laa ba tey dama lay suivre mais c'est première fois ma intégré ko bu nga xam la mm-hmm. donc participer ko participer gor moo tax nag dañ lay ñaanal parce que li ngay def yombul. Mhm. parce que ñu bëri dañuy nëbbu. Mhm. dinaa noo fi laa def def nii mais yow li ngay def yaa mhm. parce que bu demee ba naan naasir xaq wal xaq wal haadi ila siraatal mustaqim wala haadi xaadir muntasi dëgg fi ngay njëkk fi ngay mujj. bis boo deewee sax moo lay topp. ku nëbbul yàlla yaakaar naa doo nëbbu doomu aadama. dëgg la moo tax ñun ay doomu Tiwaawan lañ soxna Falma di bind Jóob boobu di wax TFM sama bàjjan la. macha allah su ma dégg dama dama koy wax. dafa am moo tax ñu bëgg sax ko wane doomu aadama parce que am lu ñu yaree. am na solo. parce que bu ñu Ndakaaru jël rek am na luñ ko am lu am na lu mu tënk. ndeysaan kon nag yàlla nañu yàlla defal jàmm. defal seen jàmm am na solo jërëjëf. parce que ñu bëri ñun ngi ñu leen war a delloo Sénégal kenn waxu si kenn jëfu si. Mm-hmm. mais nag ñun ñu ngi siy wax lu àq. am na solo jërëjëf jërëjëf kontaan nañu jërëjëf jërëjëf kontaan nañu ñu jël keneen merci donc euh, ñu jël euh, numéro bi watoon sànq réseau bi daw daa ni ñu ànd 06 bisimilah. zéro six vingt yaa ngi ci biir bisimilah. ñu ngi dool di ziar bu wér. Mhm. sunu borom baax a baax. félicitation jërëjëf ñoo ko bokk eh, man mi wax ak yow dama lu metti kan hmm, ndeysaan te yaa ngi France daa mel ni maa ngi France kan hmm, hmm. kan dama toog sama gars yi ñuy doonante ñu dóor day xeer samay classe la ñu ñoo defoon loolu ñoo def ci ndaw waaw ndeysaan ay gendarme la ñoo xam ne man ak ñoom ñoo demoon doo bàggoo waaw homme de homme de nga woon ndeysaan kenn bëggul lii wallaay. gan yi gan yi waaw na trop. trop neexul sénégalais sénégalais xamul lii ñun yërmande la ñu xam. non xamuñu lii. du sunu jikko quoi vraiment xeex sunu biir. rayante sunu biir. non du sunu du sunu jikko du dañuy dañuy méttil nii rek waaye du sunu jikko nekkul sunu deret quoi vraiment. affaire boo commencé ba léegi du ma nelaw. non kenn nelawul man démb ba ma jooyee dama pare coupé sama téléphone te di joy non non jooy tey ma ko en tout cas en tout cas daal ci nga affaire bi. fighting nga xeex nga. xeex nga kat yi affaire yi la jooy fii fii la ma fekk. gars yi sakku cinquante deux semaines. ak lëmb. waaw te xeex chaque jour. xam nga kat yaa ngi groupe maa arc de triomphe. mujj mhm. représenté France. Mhm. xam nañ ko changé lu mu dugg. monument wallaay foofu dala gaa yi jaayante. foofu la gaa yi jaayante gaa jaayante. waaw ba tey. Hmm. président Macron gën ku ne joxe xaalis mën a joxe xaalis. Hmm. pour mën xam parce que loolu dund bi la. Hmm. ñu fekkee ko. ñoo xam ne que yaa ngi liggéey circuit bi ngay liggéey sax am ne tompal nañ la si. dalal la parce que dama doon liggéey maa ma misaal ngay fekku un ngay fekku mille cinq cent mille hmm. boo fayee loyer am loo dese. Hmm. loolu moo indi affaire ci le jour. Sénégal gars nekk di guddaataa du du jël suñu xaalis di ko fooyee. kali. Hmm. affaire bi te dogguma la frère maa ngi dégg sànq sa discours président mu ne waa diaspora bi jox naa leen douze milliards. moy limay wax nax nañ ndax nañu président lek nañu xaalisam yàlla xam na ni waa France bima nek ken gisul dar ay 20 personnes ñoo ci jot xaalis 20 personnes leneen li yëpp gars dañ ko jël bàccoo ko seen biir parce que alxuraan parce que lu leer la leen wax parce que ay nit yi beuri dañ ma waxoon kali nu ñuy bindo ma jox leen affaire yi da ngay bind duggal sa compte Gmail ak yoy joxe adresse ak yoy ñëpp woom wa kali kañ laay jot kañ laay jot kuma ma woone jotul deureum man moom binduwuma woon mais ñëpp a ma woo junni nit waa Kali waa affaire bi kañ lañuy jot ma xam ne kenn jotul dara te président mu ngi def yaakaaram ne joxe na douze milliards pour jàppale diaspora mais tey ci diggante ministre des finance ak ki ko toogal fii ak yeneen ñoom ñoo coop moonin bi ñii nekk fii oh. kenn jotul dërëm yow mi yaa ngi France jotoo mille francs man jotuma mille francs yeneen Sénégal yu bëri jotuñu dërëm. mais foo dem fu nekk mi foofu kali kali man dama lay ñaanal gàmmi mhm. la gudda fan amiin bokk lépp kali tey ñu ko xoolee tey Sénégal fépp foo laal bi métti mhm. xam nga tey ñu wax sa démocratie tey boo demee mhm. côté yow suuf si côté patrimoine bi kat yi non kali foo ko Mm-hmm. maa yoroon sécurité bi. kër Ibrahima Fall sa kër yow lan lan nga woon gendarme nga woon wala policier. gendarme laa woon. gendarme da nga jékki-jékki daw <laughs> gàddaay. <laughs> am na ku génn léegi loolu la wax nee na gendarme yu bëri man man am na ay gendarme yi ma woo dañoo daw Sénégal ñëw fii di immigré kii yee nii di wax ni gis nga mu ngi expliqué. pour vous dire gendarme yi nekk Sénégal ñu ngi dund coono ak police ay weer quatre-vingt mille soixante mille am na barki démb du ma la nëbb maa ngi jégalu. xam nañ moom may seetaan wala peut-être tudd tudd jabaru capitaine jabaru capitaine gendarmerie sama xarit la daf may woo tout le temps WhatsApp. di ma woon photo jëkkëram jëkkëram camp bu nekkoon commandant instant bi dëkk bu mu nekk commandant la fa mooy gérer mhm. mais nee na ma ñoom nguuru lay waat sax la ñu a du ñu fay xamu courant du ñu fay ndox mais nee instant bi ñu nekk ndox rek lañ dul fay ndox parce que ndox mu may expliquer affaire yi garaaw te jabaru capitaine gendarmerie la. kali teg fa fu nekk front de bere rouge gars yi dañoo indi añ da doon jóge ku nekk xoolal gendarme mu nekk indi kii indi domoda kii indi yaasa kii indi sabon kii indi ceebu jën oto bi indi ko waa présence ak waa primature Ablaye Wade bu mu ñëwee fi la commencé mu dañ loolu mu dàq loolu hmm. kenn du ko wax kenn du ko nettali ko si biir hmm. kali on a beaucoup regretté sur le vieux. Hmm. Billahi, on a regretté, on a regretté. kali ñooy Touré mi Touré mi dem nii. Mhm. Touré bu dem nii mhm. la wax. mooy kii kii démissionné mais ñu ngi naan tee nañ ko teewuñu ko yan information ngeen si mujj am. <laughs> Mhm. après après. amul problème incha allah. est-ce que yaa ngi dégg. jaajëf amul problème mais ku baax la ku jullite. ku baax la la bëgg ndeysaan ndeysaan nduru na ko. soxlawul daas man dama la ko damay wax dama connaissance de cause laa wax. jàmbaar sama xol dama xol guddi na fu nekk ñëpp dem nañ laa wax guddi na demoon baa ngi fi. maa ngi si waañ bi laa dugg si waañ bi laa dugg. wallaay man man maa ngi ni si waañ bi man mi wallaay. sëñ bi mën a gërëm. keroog maa ngi romb keroog pas de la république da nga ma ma kale ngi ne man fi ne romb mbooloo yi e borom man garaaw. billaahi. Mhm. Eh, yàlla baax na kontaan naa ñu jël keneen ñu après on se capte. man guddi mhm. fan ak wóor laa leen. donc xool Grand Yoff laa ah, man xool lu ba Grand Yoff laa màggee Arafat laa màggee. Arafat Padois bi ñuy wax fa laa mhm. bi ma ñëw fa. am na solo jaajëf. ja nekkal ensemble dinañ déggantewaat incha allah. waa jël la naa ko dinañ ko enregistré dinañ déggantewaat incha allah. nekkal si jàmm jaajëf jaajëf merci ñu jël keneen jaajëf. waaw salaamaaleykum allo salaamaaleykum 09 96 wàññil Facebook bi foofu s'il vous plaît eh. ay <laughs> waaw bisimilah yow la ñuy déglu fay wootee Xadi Mbaye ñu ngi lay nuyu foog nga wàññi Facebook bi s'il vous Facebook boobu foog nga fay ko foofu xaaru ñu jël keneen Facebook goobu ngay déglu foog nga fay ko s'il fay naa ko waaw bisimilah ñu ngi lay déglu ñëwal. waa ñu ngi rafetlu bu baax a baax sa liggéey. ñoo ko bokk jërëjëf. ñu ngi lay suivre euh, depuis bu yàgg ba tey di gis sa taxawaay. Mhm. xanaa di am xol bu jeex rek comme ni ko sénégalais yëpp amee. wallaay Euh, di ñaan li xew ci suñu réew yàlla bu mu fa xewati. amiin yaa rabbal euh, yàlla nañu defal ñu ñëpp li ñuy xeex ak di ko bëgg ñu am ko ci jàmm ak salaam. ba Sénégal nekk dëkk boo xamante ni si dëkk yëpp dañ koy jublu. Mhm. da jublu benn benn dëkk. ndeysaan euh, ak Afrique yëpp. Mhm. ginnaaw loolu man li ma bëggoon a wax rek ci lu tuuti di ko wax sénégalais yëpp. Euh, Macky Sall ci jëmmi boppam euh, moom la bëggoon a fàttali ay baat yu néew. Mhm. Euh, mooy dafa am loo xamante ni si yàlla suñu borom mi ñu bind sax amu ko yàlla moo ñu bind moo ñu moom moo ñu wërsëgal moo ñu defal lépp. Mhm. bu ko neexoon képp ku def loo xamante si moom. lu wuuteeg lu yàlla. mu faat la sant la. Mhm. maanaam da lay éliminer ci sens yi. dëgg mais teewul yàlla. suturaal ñëpp nit ñi. Mhm. moo bind nit ñi moom nit ñi di leen defal lu ne mais teewul chaque jour nit ñi ngi def loo xamante ni si neexu ko mais teewul mu ngi leen bàyyi ci kaw suuf ñuy dund. la mhm. preuve am na ñoo ni gëmuñu ko gëmuñ sax yàlla te yàlla boo xool ñi ko gëmul sax dafa mel ni ñoom la seen yëf gën a baax fii ci mhm. àdduna exact exact teew loolu lépp mi ngi koy gérer te mhm. moom moo am doole moo am moo moom moom lépp mhm. euh, li ma bëgg foofu mooy mag yi man dafa war a xam ni jiite nit ñi taxul nga moom leen te it euh, boo xoolee euh, même yàlla ñi mu muy les prophètes nga xam ne ñoom la yàlla gën a bëgg ñoom la yàlla gën a fonk ci nit ñi hmm. teewul ñoom ñoo gën a sonn ci kaw suuf hmm. yenente bi lu ne daj na ko mboolem prophète yëpp lu nekk daj nañ ko ci kaw suuf hmm. alors que ñoom la yàlla gën a bëgg mais njiit ci jëm boppam moo mel noonu maanaam foo gis ci kaw suuf njiit boo xamante ni si moo gën a nekk ci jàmm ci ñam ñam jiite xamal ni njiit wu nekkul ci nekkul ci lu ko war njiit dëgg dëgg dëgg boo ko boo boo nekkee ne jàkk surtout réew ak ñum diisee nga yenn ko bu maanaam man boo gisee président bu am yaram damay jaaxal. Hmm. président de la république ay millions yu nit gàllu sa ginnaaw. di jiite leen yaru seeni seeni responsabilité. Hmm. seeni seen seen seen lekk seen naan ñu jël seen alal yoo xamante ne si ëllëg yowmal qiyaam ëllëg yowmal hmm. qiyaam. da ngay taxaw. da ngay taxaw yàlla uh, woo mboolem ña nga jiite woon mu àtte mm-hmm. Mm-hmm. kenn par kenn responsabilité bu doy noonu maanaam nan lay mën a nekkee ci ndodd nit muy muy am yaram mm-hmm. doy na waar loolu c'est-à-dire mbir la boo xamante ne si bu doy waar la bu doy waar beneen bi moom mooy euh, maanaam jiit warta nekk koo xamante ne si maanaam day jaawale yow sa jëmmi bopp ak jëmmi liñ la dénk du dëgg. Mhm. Euh, président Macky Sall dama seetlu ci waxinam toujours buy wax maanaam day jaawale jëmmi Macky Sall ak jëmmi. Euh, état bi jëmmi njiit bi nga xamante ni si Sénégalais yi dañoo jël. seen doole seen mhm. kàttan mhm. seen alal seen am-am. jox ko maanaam teg ko ci loxoom. buy wax sax da ngay seetlu ci ay waxam man en tant que maanaam dem seetlu ay ay ay problème man. man en tant que président de la république wala wala après. man en tant que njiit en tant que njiitum mhm. en tant que njiitum réew maanaam c'est-à-dire <laughs> euh, waxin boo xamante ni si lépp lu wax da koy delloo. ci jëmmam da ciy wane wu nga xamee ni mm. normalement nit baax na. te nit dafa war a oyof booy mm. booy seet ay Ablaye Wade ñoom buñ doon wax da ngay gis ni Ablaye Wade bu wax. ci li ma jot a jàpp état bi dana ci jël dogal. Mhm. gouvernement bi dana ci xalaat. Mhm. mais Macky Sall man man rek man. Mhm. dana wax dana ci jël dogal <laughs> dana ci xalaat. en tant que président melni dal mom dafa gëmul ni mom moy président de la République. yalla baax na ñu lay jaajeufal ñu jël keneen. waaw ñu ngi lay sant daal en tout cas jaajëf jaajëf jaajëf sa kii bu baax ñoo ko bokk ñoo ko bokk jërëjëf. merci merci jërëjëf jërëjëf. donc ñu koy jaajëfal ñu jël keneen daa mel ni kii mu ngi Europe 07 salaamaaleykum. mi yàlla aliya maa ngi lay nuyu 07 ñu ngi lay nuyu 74 bisimilah. waaleykum salaam kalifa gi ñu ngi leen di ziar. sant sunu borom baax a baax. Euh, mhm. tey jii man mun naa ne tey euh, dama kontaan euh, ci sa ñoo ko bokk. tey jii mën naa ne jeunes yu mel ni yow buñ ci amoon lu bari yaakaar naa affaire lu bari dinay jaar yoon. yàlla baax na. waaw ñu si sant bu baax a baax. te tey jii amoon nañ tiitaangi suñu dëkk. leneen mooy am. mais tey ji dañuy sant yàlla suñu borom delloo sotti ndox mu sedd. tey jii eh, Macky Sall tey jii lii nii am ni war na si leçon bu baax. Hmm, ndeysaan jàng na si de yaakaar naa ne de jàng na si de. war na xam ne eh, jeunesse Sénégal instant nañ ko. Hmm, na bu baax sax. Ah, dañu am luñ doon hmm. mais jeunesse Sénégal nañ ko. sunu sunu boolu muñukaay moo moo moo sunu dañoo muñ dañoo muñ ba sonn. Hmm. bu yàggee day fippu. tey ji loolu moo hmm. ji moom na nga xamante xalaatuñ ko woon de coow benn fan lañ ko yaakaaroon. <laughs> moom pour moom xalaat coow li si Sénégal. <laughs> bu ne jaar na. nga boo xoolee si discours sax xam ni carrément. non il a il a il a perdu la tête moom koy reconnaître na que daanu na. Mhm, daanu na. Mhm, heureusement doguma la doguma la heureusement dafa dawloo suñu yaram ñun ñëpp dafa ñëw ak calme bi quoi. nduru ute naag ministre de l' intérieur am bu ñëwoon tey mu menacé rek. day gën a méttil mbir mi mais Macky Sall dafa ñëw tey si maslaa bu sedd guy. Mm-hmm. Mm-hmm. jéemul naan ay dañuy topp ñuy yàq ñii dañ leen di tëj xalaat waxu <laughs> nee naa dama doon dox si Europe affaire vidéo yi mm-hmm. ñetti bi Sénégal damay dox di saaga ne man la moo tax Macky Sall mu gën a wax affaire yi sedd nit ñi di daanu di dee ñi daj ñi daj alalu jàmbur yi di sàcc yi oto jàmbur yi ah. di taal di insécurité insécurité totale ah te ñu ngi koy def seen yoon ci mhm. tali wallahi azim ma koy dox di ko mettre fii ba suma sër dafa ma naan waaye yow dégg nga ma ne ko wallahi azim mais saa bu mu mënoon a jot Macky Sall dinaa ko hmm. saag ma ne ko lii dafa neexoo si xol sa dëkk bi tax ñetti fan yow nga ne doo génn wax nga croiser les bras ma ne kon tey ji Macky Sall la Abdoulaye Wade la ma doon wax si Macky Sall dëgg la. yooyu na ko de Macky dafa renseigné. Hmm. ma ne kon nag Abdoulaye Wade ak ñeneen ñi ñeneen dañ doon wax si Macky Sall dëgg la tey ji lii la wane. Hmm. Abdoulaye Wade 23 juin ba dëkk ba tàngee ba tàng 18 heures xaw 17 heures. arrière génn wax. Hmm. lépp sedd. arrière. arrière lépp sedd. kon tey ji lii bu ba am sa dëkk di tàq ñiy def naka sa dul noonu. ah. génneel calme jeu bi ñëpp delluwaat jàmm. mënoon nañoo bañ a egg fii de moom. policiers yi ah, yoo xam ne pendant un an ñu ngi ci début coronavirus bi ay couvre-feu ay dox ci mbedd bi boo taxul masque ak effectif bi motul lekk ñu seen lekk doyul gis nga lu ñuy lekk ay cent dix ak benn palaatu ceeb dix mille policiers dañoo xiif sonn. non mais ñun xam nañ sunu situation booy policiers yi nag. Hmm? policier laa am. lekk ñu. koy wax loolu. bu ñu tëdd koy wax loolu koy wax loolu ñun koy xam nañ situation yi booy du dund. Ah, booy zemi yi du di dund lacrymogène yëpp gis nañ lu ñuy dund seen téléphone bu gën a baax bu ñu yor ay qualité Dubaï la yoruñ sax Galaxy bu baax. man kay damay jaay téléphone da nga gis benn booy zemi ñëw andi ay quinze mille treize mille ne la téléphone laa bëgg. lekkuñu naanuñu amuñu dara. dafa métti. Ah, tey ji nga am neneen ni nga xamante ni moom nga war na taxawee sa dëkk hmm. ah policiers yu sonn booy yu sonn booy dañu sonn nañ ah kenn xamul affaire bi yow nga ne doo génne calmejé bi ah tey ji maara day taale xam nga policiers yi ñu ngi téye booy du ci di dóor bag ñiy mais booy dóor ñu benn policier mu dee te mënoon nañ ko def nag ndeysaan waa dañuy jékku policiers yi mënoon nañ jàpp police taal mënoon nañ jàpp police sa jàmm. si si si si ñoom police dañuy daw sax ñu jàpp di leen filmer di reetaan comme ah, bëre bu kër mbaam. kon mm-hmm. ko ñu xar ñaar mm-hmm. ñoo bokk ndey yàlla baax na jaajëf ñu ngi lay jaajëfal ñu jël keneen. jërëjëf maa ngi maa nañu on ensemble jërëjëf jërëjëf jërëjëf. gars yi doon woote vraiment bëri nañu macha allah bëri ngeen trop. ndeysaan ma leen di jaajëfal comme na ko gars yi di waxee rek man mu xeebu mii maay toog fii di def live di wax amuñu xam-xam jaaruñu formation suñu njàng soriwul di wax ak yéen ngeen topp ligne bi connexion surtout yéen ñi nekk Sénégal nu mu seeree ngeen jël seen temps di seetaan ñii di woote WhatsApp ñii di bégee ñii di kii vraiment dam leen di jaajëfal ñu jël keneen salaamaaleykum. naam. ma laale eh Mr Alain yow 39 nga yor léegi yaa ngi Mr Alain Mr Alain foo jëlee 39 ah non non mooy sama ya. numéro <laughs> Italie ya, ah yeah parce que parce que numéro Angleterre nga amoon wala da ngay nëbbatu Macky Sall changé numéro non non non man moom man moom maa yore numéro yaa ngi Sénégal wala ñibbisi nga yaa ngi fi non fi fi ah d'accord ah yeah bismillah nakamu ah yéen. waaw sant yàlla xanaa naxar bi. bëgg mm-hmm. bokk ci. Mm-hmm. participer vraiment ci naxar bi. am na solo waroon a ñàkk. Mm-hmm. comme nu mu ko doon di wax keroog rek. depuis commencement. maa ngi doon di naan comme gars yi door nañu këru Ousmane Sonko keroog te kenn deewul. bokk na fi yem bu lii amati. ndekete ils n'ont rien compris. Oh. mais maa koy naxaru tamit ci vraiment. état Sénégal nu mu jëlee affaire yi. parce que mm. man jigéen vraiment waruloon mun a taal ni suñu réew comme nañu gis nii tey. lobay loo dégguma ko de. <laughs> Mm-hmm. voilà mën nañu def lu nga xamante ne jàmm am te kenn du ci dee quoi parce que man gisuma fii lan la nit waroon a mun a dee. Mm-hmm. parce que 2011 man d'accord naa sax ci lu amoon ba ñi dee. mais deux mille vingt et un bu ñu dundee nii semaine bi mënoon a ñàkk. Mhm. mënoon a ñàkk. Mm, parce que affaire jigéen man yaakaar naa ni waruloon mun a taal Sénégal parce que xam nañu jigéen nu mu mel ci réew. Mhm. jigéen yàgg na andi jafe-jafe àdduna. du jigéen ñëpp nag jigéen moom ci lu ko yàlla bind ci parce que am na ñu nga xamante ne ñoom seen bopp. noonu lañ dañ dañ ci dañuy jaayu à la fin. waaye donc tey Adji Sarr man yaakaar naa ni bu tëddee du nelaw te man du ma ko condamné parce que lan dama ne innocente la. Hmm. innocente la dañ ko utilisé dañ ko utiliser. Hmm. ëpp ko doole nax ko même bu doon milliard lañ koy jox sax mais kii luñ ko defal loolu yëpp xamu ci dara non seulement xale la doon mag la xam borom salon baa yi nii def nañu lu ne mu bañ. Mhm. Mhm. parce que kilifa la. pourtant am na ñu ko doon di condamné jamono jooju. mais man mhm. maa doon di naan bu ko kenn condamné même bu doon dem nañu ba xam dëgg bi bu ko kenn tëj ndekte moom moo doon li sauvé Ousmane Sonko. parce que moom tey bu bokkoon ci deal bi nu muy demee. day gën tëlim. day compliqué. gis nga moo tax Ousmane Sonko yàlla moo koy aar boppam. métti na nag métti na tuumaal ko def ku nekk nga am lu la naxari nga am lu la métti mm-hmm. mais nag am na ñi nga xamante ne kenn du leen laal mm-hmm. man loolu yàgg naa ko wax c'est vrai Ousmane Sonko dafa bokku ci ñu ñi yàlla moo koy aaral boppam mm-hmm. parce que amul doole dafa néew doole mais tey dafa mel ni dafa daaneel état moo tax mooy jamono yónnante yàlla yi wala ñu nga xamante ne dañoo yaakaar ni ay yàlla lañu. Mhm. xam nga ci seen diine yéen musulman yi dafa am ku ngeen di naan buur bu mag la. Mhm. buñ ko naanee dafa am kam moo juddoo pour jël sa nguur lu mu def dafa ne rey leen xale yëpp yu doog a juddoo. Mhm. wante xale bu mu bàyyi noonu ci këram xamuloon ni xale boobu mooy jóg bés jël nguur bi. lii nga xamante ne yàlla moo xool ku ko neex lu ko neex lay def ci nit ki mhm. tey sal lii war na ci yeewu mais man nee naa même bu doon benn xale moo ci dee sax ba léegi jaru ko warul mhm. ma tey Macky Sall dafa war a démissionner man loolu laa nekk di ah, xaar moom la ñuy ñaan ba léegi tey yàlla baax na mën na dem ba ah, démissionner parce que lii amatul amatul courage bi quoi échec amatul courage wéet na weet na wéet na si liggéey bi et puis mu démissionné rek ñu def beneen gouvernement daal. mais toogaay bu mu toog noonu bañ a wax lan la gàcce la. jombi na. dafa rus. Mhm. ñun ñëpp xam nañu. Mhm. ay mag lañu ni moom. xam mhm. nañu luy àdduna. am nay gàcce yi nga xamante ne Macky Sall nit dong la. moo tax nit da xam ni fii àdduna bi kenn gënu fi kenn. yàlla moo ñu yemale fi ñun ñëpp nu mu juddoo. ñun tamit noonu lañ juddoo. Mhm. bés nu muy dee tamit ñun tamit noonu la ñuy dee. Mhm. bokk nañu delluwaat suñu xel. ñu xam ni vraiment am na lu ko jarul quoi. jaarul mhm. man lii nee naa ko tey Macky Sall bu sa doom deewoon tey Amadou Sall. bu doon moom la ñu reyoon tey yow ak Marème fay Sall nak ngeen di dundee situation. ndeysaan ndeysaan. donc nit da ngay di ko xool ci yow balaa ngay dem sax ci keneen. moo tax man xoolal je condamne ba ci kanamu yàlla. ci li ñu def nii. mais Ousmane Sonko du ma ko ci mën a dugal parce que dañ ko tooñ. Mhm. ba pare nag ma ma xaar may seel a bàyyi bi maa ngi condamné tamit ñu nga xamante ne tey Macky Sall da leen a jël ñu naan ñoo may nervi lañu. armé leen. ñuy reyante. gis nga keroo maa ngi la bëggoon a woo pour ah, pour féliciter la ci lu nga def noonu. métti mhm. na nag parce que gis naa ne ay xarit ngeen. Mhm. wante am na lu nga xamante ne yàlla. yàlla xam nga lu mu bëgg ci mm-hmm. bu dee yow gis nga lu nga xamante ne lii mun na taal àdduna boo ko defuloon tey yow condamnation bu lay bu yàlla di condamné ñooñu mm-hmm. yow mi benn kiif bu ñu naree dugg safara yow mi da ngay dugg safara doogu dooguma la dooguma la boo xoole mujj bi sax état bi dafa retiré nerve mi dañoo dañ leen mujj retiré si si si terrain bi parce que xam nañ ne dem nañ bay cóol mais nerve yi ñu ngi ci non retiré nañ leen finalement mm-hmm. waaw xam nañ ne am na nervi yi mais retiré nañ leen si si si terrain bi tey yëpp gisoo si nervi yi ah. non non maanaam tey manifestation tey bi amul fu nervi taxaw. Ah, waaw parce que mooy li may wax tey ak ak démb yëpp. Mhm, ak démb yëpp fekk xam nañu dem nañ ba ci biir retire leen. Mhm. man waaye bés bu Macky Sall di daanu. Mhm. dinañ leen teg ci kanam parce que xam nañ leen mhm. xanaa nañu daw réew mi. Mhm. bu ñu dawee moom. xëy na dañuy lakkatu bañ a ñëw ci Sénégal xanaa. parce que dañoo rey. doy na waar c'est des criminels. voilà donc euh, maa ngi lay. vraiment jaajëf jaajëf grand vraiment yow yow di la ñu ngi lay remercier. nga bañ a dugg ci lu nga xamante ne vraiment. nag sotul noonu waaye da ngay tooñ mën naa bul tooñ. mais bu dee da nga bëgg a sauver sa réew. sauver ko. c'est ça am na solo merci beaucoup jaajëf frère jaajëf kontaan naa jaajëf donc xam naa ne gars yi damay jël kii di woote ni vidéo lay woote coppel vidéo bi ma jël numéro 77 596 woote l'appel normal ok numéro bi doon woote léegi vidéo bul woo vidéo jarul woo vidéo woote l'appel normal rek ñu dugal la et puis ki doon wax léegi mooy Alain Diémé du suñu frère day def live si internet bi di liggéeykat vraiment nekkoon Angleterre di suñu grand ñu koy jaajëfal bu baax xam nga lii rek dafa neex euh, vraiment sama grand ñuy toog Kaliphone de live ñu bàyyi ko xel ni te grand bu baax la quoi waaw donc comme niñ leen ko doon waxee état bi dañ dem ba xam ne nervi yi dem nañ ma découvrir leen APR la ñu bokk APR moo leen di liggéeyal moo tax ñu dem retirer leen parce que gis ngeen ki yor euh, mbirub ay droit de l'homme tubaab bi gis ngeen def nañ documentaire France 24 teg ngeen seen bët teg naa ko démb ñu ne dañuy exiger état bi mu wax ñoo ñu yore ay kurta ak jaasi ñan la moo tax gis ngeen leen ñu génne leen démb teewuñu tey teewuñu encore une fois combat bi bàyyiwuñu de bàyyiwuñu amaguñu amaguñu lu ñu bëgg amaguñu lu ñu bëgg nee nañ leen jamono ji ñun ñooy conditionné du Macky Sall li ma waxoon sama discours démb ba Ousmane Sonko président jaar si ba Macky Sall président jaar si mooy ñun ñooy dogal ñii ñu faat seen bakkan na nguur dem jox seeni waa kër ay indemnisation yu doy sëkk jaale leen deuxième ñu ubbi enquête def ay autopsie xool bali tiire doomu aadama yooyu ñu xool ban policier moo tiire ñu yóbbu leen devant la justice parce que policier amul droit jël arme de tiire lu dul bu doon cas bi dafa grave mooy lan bu doon ñoom Californie dañoo yoroon seen pistolet di tiire ñu tiirante ak ñoom mais télé yi wane nañu image yi wane nañu amul fu manifestant yore pistolet di tiire wala yore jaasi manifestant yi arme bu gën a foor lu ñu yoroon mooy xeer te loolu Europe fii France am na fi France bi ñu nekk manifestant yi taal nañ fi ay lu ëpp dix mille auto police dóor fi ay police ay butel def si seeni affaire kiy suñ kiy di explosé di explosé si kaw police ba police seen loxo di dàgg fii dàgg nañ fi loxo police te police yi am nañu pistolet am lépp mais tiré wuñu parce que France fii police bu tirer nit c'est fini pour yow dañ lay tëj à vie ñun tubaab yi waruñ ñu ëpp droit waruñ ñu gën a bëgg suñu bopp encore une fois suñu frère policier ak gendarme mooy loolu donc ñi Macky Sall jàpp daf leen libéré Assane Diouf Clédor Sène Guy Marius Sagna ba gaa yëpp nañ leen libéré ñu tànn jour bu dee chaque dimanche wala chaque samedi ñu def manifestation di wax ne que état peuple bi ñu ngi fi ba léegi nee naa leen France fii ñi nekk fii xam nañ ko deux mille dix neuf la commencé ba ñu ngi deux mille vingt et un chaque samedi gilets jaunes yi dañuy manifester chaque samedi chaque samedi chaque samedi amul tëbal te pourtant ñoom am nañu train am na ñu oto am nañu courant am nañ dund bu baax seen hôpitaux yi baax nañu mais dañuy kaas rek pour nguur wàññil sa train de vie. moo ñi manifester kon amul bàyyeeku laq yeeg ak jamaata yek sàndi yeeg loolu mën na ci suuf ñu wote dal c'est bien beau duñu sante kenn mu taal duñu sante kenn agressé mais nag nit ñi genn continuer nak di manifester manifester pacifique don junni nit taxaw ne sunu Sénégal lañu bëgg mu changer taxaw ne suñu Sénégal dañ ko bëgg télé yi di ko gis partout dans le monde waaw ki nee na à Lyon exactement barki démb la am Lyon fii benn booy scooter la yoroon xaw ma lan accidenté scooter ñu ne policier ko dàqi mu daanu accidenté mais presque taal nañ fi dix auto police dix yàggul te dóoruñu bal réel fii da ngay gis booy ñëw jël oto accéléré ci kaw police mais policier dañuy maîtriser seen bopp parce que policier fii boo fi tiiree nit amul layam layam yi amul dañ lay jàpp ñëw tëj la force fii policier doo dóor nit fii policier dóor xanaa ñu bañ la filmer bañ la gis mais bés boo dóoree nit ñu teg si bët nga am preuve boo koy porter plainte amul demal ñëw loolu lañ bëgg suñu réew mel arrogance bi wàññeeku ministre bi bañ a xool ne kii ab baadoola lu ko neex def gendarme bi bañ a xool ne kii maa kopp doole bu waxee ma mënute ko yooyu dafa war a jeex encore loolu laa doon wax fii gis nga France fii ñu nekk comme tey ñi nga xam ne seen yaay restaurant la ñuy liggéey wala hôpital di raxas karo faalewuñu Macron waxuma la kii di liggéey hôpital kii doomu kii di liggéey hôpital faalewul Macron parce que mu ngi tedd mu ngi am alal parce que yaayam ñu ngi koy fay lu mot fii jànk yi rek mbindaan bokk comme niñ ko tàmm di wax du wax ju ñaaw ñu ngi fay ko loolu ak loolu ñii di nga xam ne restaurant la ñuy liggéey di raxas ay ndab te du sa loxoy nga koy raxasee machine lu ñu coppa firi da ngay jël rek ñu wàcc ci machine bi nga bës bouton yow nga def nii sa lox xaalis bu dul jeex lañ lay fay Sénégal nag da sëgg restaurant yi gars yi lekk maafe bi ba toog nga sëgg di jonju di raxas di nettoyer di fóot mënoo am weer sax trente mille loolu dafa metti trent mille lan la mën cinquante mille lan la mën soixante dix mille lan la mën te salaire Sénégal ku si am soixante dix mille nga ne cadre nga ñu bëri ay trente mille quarante mille quarante cinq mille cinquante mille dafa métti encore une fois nguur na gestu askanam nguur na xam ne ñun dañ ko fal pour mu taxawuñu faluñu ko pour ñoom ñuy enrichir di ñu fàtte ñun baadoole bi parce que loolu dafa yàgg quoi loolu dafa yàgg nguur rek di am. ñun rek du ñu am xoola Abdou Mbow exemple Abdou Mbow bi toog tey rajo yi di ubbi làmmiñam bi di rëy Abdou Mbow yàggul yéen nga anniversaire la nekkoon ay caaf la doon lekk ak ay si restaurant étudiants yi lekkul naanul ay chemise yu nganda lañ doon sol ay kos yu gudd Abdou Mbow boobu tey gis ngeen ko fu mu toog tabax na këram yoor na ay kaat kaatam yor ay passeport diplomatique fu ko neex dem te gis ngeen costume yi muy soli rek costume yi costume yi muy xoju di ñëw télé yi ay millions la costume yi di jar koo xam ne ba muy nekk université ay Lacoste yi marché fugg a jaay la doon jënd koo xam ne université am yàggul Abdou Mbow am na ñoo xam ne ñoo ko gën a jàng Sénégal fop doon ay cadre mais ñoo ñu ngi noonu amuñu liggéey ay nit yoo xam ne ñoo ko gën a jàng amuñu liggéey parce que ñooñu defuñu politique mais Sénégal boo defee politique da ngay tekki boo deful politique doo am am na ñoo xam ne am nañu seen doctorat seen thèse seen lépp mais lan lañ leen di fay ay enseignant ay weer cent mille ay cent cinquante mille lan la mën benn ministre boo xamante ni jàngul sax wala député boo xam ne ñu fal député toog assemblée nationale di seetaan ay Candy Crush ay film député yoo xam ne nelaw rek la ñuy def loolu amul sens encore une fois ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla continuer di may ndam. ci kaw nguur encore une fois comme niñ leen ko doon waxee rek peuple bi ñooy décider ñun ñooy décider te signal bi wan nañ ko Macky sàll yàlla xam na ni Macky sàll fu mu toll nii mu bàyyi nguur bi moo ko gënal sax moo égale nguur bi parce que xam na ni ñii mu àndal ay traître lañu parce que bu doon sagom milliare yi mu jékki-jékki investir ko jox ay ministre am ñuy ñëw rek di furut xaalis bi yàlla xam na ni mu réussir ba muy naan ay PSE ay plan Sénégal émergent dafa mon bébët bi ñëw nañu ba France fii lebu fi milliards première tranche ñu bi suñu bori dañuy dund ba dé dañuy continuer di fay bor fan la France sept quelques milliards bobu fan la dugg douane xaalis bu muy am ay de quelques milliards xaalis bobu fan lay dugg impôt et domaine milliards yi muy am fan lay aéroport boo ne cëpp impôt yi ngay fay foofu xaalis boobu fu muy dugg police yi scooter yi ñuy jàpp taxi yi ñuy jàpp ñu lay attesté ngay fay douze mille quinze mille treize mille ñu lay bindal reçu xaalis yooyu fan lay dugg gendarmerie ñëwagul ainsi de suite suñu xaalis fan lay dugg France fii duñu laajte ñoom seen xaalis fan lay dugg parce que nee naa leen fii chaque fin du mois sa doom waxuma la tubaab bi sax waxuma la ñun ñetti ñuul yi dem leen laaj leen seen sœurs yi am na ñoo ñu ngi fii di ma seetaan am nañ fay doom comme Mia la Lion bi sama xarit la day def live am na fi lu mu dee ñetti doom ñeenti doom bu moo noonu woote léegi dina confirmer sénégalaise la mu ngi fii am na lu mu dee ñetti doomam yu jigéen chaque fin du mois ñu ngi koy fay lu mu dee doom bu nekk deux cent euros parfois moom ci boppam dañ koy fay tey boo demee fenn kër luwaas nekk maanaam presque mille euros. yow bu la nee am na foo xam ne dangay ngay bind lettre ne sa yow sa doole matul loolu ñu xool ñaata ngay fekk weer ay mille deux cent euros ngay fekk wala mille état da lay dimbali kër gi nga jël mille euros la état mën na la fayal huit cent euros yi yow deux cent euros dong ngay fay loolu ndimbal la kon ñii du ñu laaj seen xaalis fu ko état def parce que état mu ngi leen di dimbali ñii mu ngi koy wax mooy kaaf baaba puy bi kaaf mooy allocation familiale ak yooyu dañuy wala booy fii du ñu jooy naan état dimbaliwul ñu ngi leen di dimbali ñun nag na état dimbaliwul école bu ubbee sax kaye kaye école bu ubbee kaye da ngay jënd kaye da ngay jënd bic da ngay jënd gomme dangay jënd feutre da ngay jënd crayon da ngay jënd protège da ngay def inscription fii école bu ubbee amul fay inscription amul bu école di ubbi ñii di ma seetaan nii am nañu doomi nekk fii. wala seen doom yi muy jigéen wala muy góor bu école di ubbi école buy ubbi état bi da lay xaalis ne jëndalal xale yi ay yére jëndalal xale yi fourniture ñii di seetaan nii bu doon nekk ma fi sax ñu ne da ngay xam nga li may am na toog caaro yi daan ah est la ñu ngi fii si dëkk bi te yi mën nañ commenter ne c'est vrai école buy ubbi école buy ubbi état bi day yónnee kër bu nekk. poste ñu wari la ñu defal la ko Orange Money ñu defal la ko ne Union maanaam sa compte lañ la koy verser ñaata doom nga am dix du ñu naan ñaari lañuy jox ñett yeneen du ñu am de loolu amu fi boo amoon vingt doom vingt yëpp lañuy jox mais xoole Sénégal bu ñuy dimbali dañu naan kër gi nekk ngeen vingt personnes benn nit rek lañu mën a dimbali fii bu ngeen nekkoon mille personnes ñëpp lañuy jox élèves bu nekk dañ koy jox bu vacances jotee comme tey sa doom nga koy dugali ay loisir comme sport ka wala leneen nga sa doom karatéka état bi da lay jox di fayal xale bi karatéka bu muy jàngi sa doom daa bëgg dafi judoka demal nga dugal ko centre judoka état bi moo koy fayal judoka ñun nag sunu école buy ubbi sunu doom yi papa yëpp jommi

di naan yàlla suñu borom rek comme d'habitude yàlla ñu yàlla may ndam yàlla ñu yàlla kàttanal yàlla nañu yàlla taxaw nañ ko gëm rek nañ ko gëm rek bu ñu gëmee ne suñu réew ñu ndaw ñii tey ñoo ko mën a defar incha allahu rabbi dina baax donc sama gaay yi maa ngi jégalu di leen wax ni que ñu fanaan ak jàmm incha yàlla ñu yàlla may fanaanub jàmm may kontaan si yéen ñëpp yéen ñi doon seetaan yéen ñi di commenté yéen ñi di partagé yéen ñi woote dugg ñi bëggoon woote te mënuñu dugg ligne bi dafa xawoon a saturé yéen ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen kontaane di leen sant di leen gërëm di leen baaluwaat ak di leen jaajëfal di ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla taxaw yàlla ñu yàlla sàmm yàlla ñu yàlla aar donc ñu fanaan ak jàmm bu suba ak jàmm incha allahu rabbi jaa ngeen jëf jàmm si ñëpp